cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké sagal nga lislaam jërëjëfe Mbacké. nañ sant rek te soññu bu nu geesu bu nu taxaw. cheikh Mouhamadou Mountakha al Mbacké di la sant ka ziar daa war dàkk jërëjëfe Mbacké. Hizbut Tarqiyyah ay géej ay tund. ay montagne bu doxoon sa diggante ak sëb sëriñ da ko war a jéggi. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2021 Touba daara Hizbut Tarqiyyah moo fas yéene amal ziar bu mag. ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaka mbàkke Hizbut Tarqiyyah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Al Mouridiyyah euh, te doon ñu topp ci waxtu wi euh, saa su nekk seen émission bu mag bii di euh, ziar ñu ngi leen di nuyu di leen waat bu baax a baax di jiital si nuyoo bi ak ci ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaanal suñu borom mu guddal fanam. waaye it mu defal ko ak wér ba naa li nga xam ne sumb na ko ci liggéeyu maam ju tedd ji cheikhul xadim mu yeggale ko ak sagoom te lépp nu ko ak moom waaye lépp it nu ànd ko ak mboolem xadim yëpp Eh, kenn bañ a wuute eh, di eh, rek ànd ak yéen ci ni nga xam ne noonu lañ leen ko jigee woon ci keroog muy bi ñuy toog a tàmbali émission bi fas yéene di leen gunge nag ci guddi gu jot rek ci waxtu wi ba keroog ñuy sës ci li nga xam ne si moom mooy ziar bu mag boobu nga xam ne Hizbut Tarqiyyah mi ngi koy waajal ci sang bu tedd bii di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yaakaar naa ñaari jataay yi fi jaaragun euh, neex na leen lool euh, ndax euh, seeni woote wane na ko ak seeni message saa su nekk ngeen di fësal seen mbégte ci télévision Al Mouridiyyah ak li nga xam ne moom mooy programme am tey jii nag noonu lañu ñu fas yéene àndewaat ak yéen rek ci ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyub daara ji hmm, yor it pàcc bu am solo ci waajtaayu ziara bi ndax ziara bi mu leen ko waxoon biig du loo xam ne si euh, dañu ne bëri rek daal ne aci ñu ziyaare ji déedéet dañu koy waajal ba lépp loo xam ne si euh, lu ci yell la lépp loo xam ne si lu mu war a àndal képp koo xam ne si war nga koo yëg képp koo xam ne si euh, am nga ci pàcc wala loo xam ne ñu la dénk la nga doxal ko ni nga xam ne si noonu la ñu ko bëggee su ko defee bés bu ñu jógee bay dem ci sëriñ bi dana fekk lépp mën a yemb lépp mën a jaar yoon loolu waral kon seen émission bi aussi ñu indi leen ko di ci indi rek li nga xam ne moom mooy cëslaayul ziar lan moo tax Hizbut Tarqiyyah jóg ne dafay ziare ji Cheikh Mouhamadul Mountakha ziare bi jiituwu ci daan nañu ko ziare ji bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy xalif si Serigne Touba yi fi jaar yëpp gis ngeen sax euh, image archive yi nga xam ne si indil nañ leen ko ci ay ay ay ziar yoo xam ne jot na fee jaar loolu yëpp day wane rek ne ziar moom lu yàlla ci ab taalibi jëmale ko ci ab euh, sëriñam an nag nu nu koy defee yan teggin la am yan cëslaay la am tamit ci lislaam loolu yëpp am na ci loo xam ne si ñëw nañ ci leneen li ci des incha allah suñu jotaay tey bii daañu ko ci wax yeneen ci des it daañu ko denc euh, euh, xam ne si ñoom ñoo nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah te ngànk liggéey boobu euh, Serigne Youssou Diop mi nga xam ne moom mooy jëwriñ gi dénk leen ko ñu di ko doxal bu ko defee ngoon gu jot ñu ñëw wax ñu ñoom fan la ñu yem ci waajtaay woowu ak liggéey bu am solo boobu nga xam n si ñu ngi ko defee kon tey ci ci plateau bi dañu am imam Alioune Guèye sëñ Alioune Guèye moom euh, moom la ñu fas yéene waxtaanal ci euh, thème bi euh, ànd it ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diouf moom tamit mun nañu gunge ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi suñu jógee ci loolu daanu dem ci euh, Serigne euh, Mourtala Sey moom it euh, nga xam ne mu ngi ci direction général di fa def liggéey bu am solo te ci wàllu ziyaara gi sax mu am pàcc boo xam ne dañ ko koo dénk mu di ko liggéey ak di ko doxal danañu wax moom it liggéeyam fan la jëm ak it fan la ci toll ci jamono ji ñu ñu toll. daañu ànd ak Serigne Gora Sarr moom mi ngi foofu ci Italie yorta fi tamit moom it liggéey bu am solo boo xam ne si ma ngi koy jàpp ca daara ja moom it ñu wax teewaayam fii lu ko waral ak liggéey bi tamit nan lañ koy doxalee foofee itali ak fan lañ ci toll yooyu yëpp incha allah daañu ci ñëw daanu ñëwit ci yenn mbokk yi nga xam ne si xëy na nekkuñu fi naam euh, waaye ñi ngay représenté ay daara ca gox ba ñu ne wala ca fa ñu ne danañu dem Guinée Bissau incha allah daañu dem tamit fu mel ne France euh, daañu dem tamit fu mel ne Kolda gi ndax di biig digoon nañu leen ko waaye waxtu wee xatoon waaye incha allah daañu ci dem ak mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk eh, ca daara yooyu di soññee hmm, ngir euh, lépp mën a jaar yoon su ko defee yooyu tamit daañu ci ñëw daañu ñëw tamit ci benn extrait ziar ne dañ leen ko jukkil ci biir waxtaan boo xam ne Hizbut Tarqiyyah defoon na ko ci euh, li jàll ci kenn ci xalifa yi Serigne Touba moom it daañu ci ñëw euh, dégtal leen ko kon mën nañoo bàyyi imaam mu daal di nuyoo euh, sëñ Aliou asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa ñu la ziare waaye itam di jiital suñu nuyoo ak suñu ziare suñu sang bu tedd bi ak mu yàgg amiin antenne télévision waaye itam di hmm. nuyu sama jëwriñ yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk ci plateau bi di sëriñ Mouhamadou Diouf sëriñ Mouhamadou Fadla Sey ak sëriñ Mame mi nga xam ne hmm. moo bàyyi ko ba Italie ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu hmm. uh, di nuyu tey ziare mboolem waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu sëñ Modou ñu lay delloo nuyu bu baax di ziare Serigne Alioune Guèye ak euh, ñi nga xam ne ñoo toog jataay bi Serigne mm-hmm. Mangour Sarr mm-hmm. di jaar ci moom di ziare mboolem waa itali ak mm-hmm. mboolem daari isbu tarix yi nekk ci bitim réew ak ci biir réew mi di ziare Serigne Mourtala Sey ak waa direction générale yëpp di ziare jëwriñu daari isbu tarix yi Serigne Youssou Diop Euh, di ñaanal mun Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu matale ko te ñaandu ko ak moom. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf suñu Amadou Lamine Diouf ñu ngi lay santaat bu baax a baax suñu Mourtala Seye asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala maa ngi la nuyu bu baax a baax di la ziar. di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi bokkal plateau bi. Ah. waaye di tàmbale ci nuyoo bi ak ziar bi. ki nga xam ne mooy xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér te naal yi nga xam ne naal na ko liggéeyal sëñ Touba euh, mu àgg ba mu naalaat yeneen naal te ñu ànd kook moom loolu ñu ngi koy ñaan baax a baax di nuyu tamit mboolem téléspectateur yi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp ci seen émission bu am solo bi nga xam ne wax dëgg yàlla jot a jàll yëpp macha allah fees na dell ak euh, fàttali ak njàngale ak soññee képp koo xam ne am nga mar sëñ bi soo ko seetaanee waxtu wu nekk sa yitte dana jëm ci buur daawutal sëñ bi te loolu rek nag mooy suñu yitte ci kaw suuf mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu Mouhamadou Mourtala Seye ñu lay santaat bu baax a baax ci nuyoo bu matale boobu sëñ Gora asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ maam mhm. ñu ngi siyaar bu baax a baax. Mhm. di siyaar sëñ Mourtala Sey mhm. bokkal plateau bi. ak sëñ Mamadou Lamine ak sëñ Aline Guèye. di siyaare jëwriñu daara ji muy sëñ Yuusu. di ñaan suñu boroom sëriñ mun sëriñ Muntaxa mu yàgg fi yool te wér. te ñu ànd ak moom ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga xam ne. ci saa su ne. ci la nekk. te lii ñuy def ci waajtaay wi rek kon moo ko waral. Mhm. kon ñu lay delloo nuyoo bi kon ba ci kanam Touba. ok jërëjëf suñu maam góor ñu ngi lay santaat yow bu baax a baax ci nuyoo yu matale yooyu macha allah ah, su ko defee kon ah, xam naa mën nañoo tàmbalee ci imaam rek imam ah, ci waxtaan bi nga xam ne si moom la ñu bëgg a seq tey damay def na ku toog moom faaw ma laaj la d'abord baatub ziar soo ko déggee. lan la sa xel di njëkk a dem wala lan ngay xalaat ba pare. jërëjëf euh, sëriñ Modou Kébé baatu ziar. Mhm. man euh, su ma ko déggee. Mhm. sama xel ci li muy dem. Mhm. mooy xasida goo xam ni. saa su ma koy duus rek. su ma yeggee ci bayit woowee day mel ni ndigal la may jox. Ah. mooy bayitu zurman tuhibbu. wa in chattat bi kat daaru wa xaala min dunihi sëhlan wa awaaru ah. te ginnaaw ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi. bayit lu mu bëgg a wax. waaw euh, na nga ziyaare ka mm-hmm. nga sob ki nga sopp dee ko ziyaare mm-hmm. te taaliba bu nekk mm-hmm. wala julli bu nekk laay tàmbalee sax ndax julli bu nekk bu ñu fàttali ko rasulullah sallallahu ba muy wax saxaaba yi di leen jàngal lii tax ñu mën a jariñ seen diine ba noppi di mën a yëg bànneex ci seen diine yegg euh, naa ñoom ci ba ab saxaaba dikkee suñu borom bëgg a jaarale ci moom ak jàngale Muhammad rasulullah sallallahu alayhi ni ko lu dul sama jëmm ji yaa yàlla yéen a ma ko gënal. yonent bi ne ko nag sa gëm du mag du mat mukk fii ak du yàlla ak yonent bi dañ laa gënal sa jëmmi bopp. mu daal di xam ni li ko yonent wax. moo leen nekkoon dëgg ci moom. waaye bañ ko jàngalee xam ne loolu li dëgg ci moom mooy dëgg. ci la waxaat Rasulullah sallam ni ko lu dul xamal ko ni ko yàlla ak yonent bi ñëw ma gënal lépp. ba gën ba gënal ma sama jëmm ji. kon ab jullit foofu la war a nekk. waaye itam ab taalibe foofu la war a nekk mm. ndax euh, li nga xam ne moom mooy fi bi sëñ bi jàngale ak taalibe mm. di jàngale am murit mm. di jàngale melay murit saadix dégg nga mu wax ni as-sidqu fi mahabbati cheikh abad kon day dëggal ci sopp sëñ bi ci sax waaye itam baatu murit bi nga koy teqantal arab bu nekk la muy wund arab wa ci njëkk di miim mooy mahabbatu cheikh mooy sopp sëriñ bi kon nag suñu jàkkaarloo ak bayit boo xam ne dañoo wax ni ñu del siyaare ki nga sopp siyaare bu sax te yow nga yëg ni yow sëriñ bi nga sopp kon doon ngaa yëg ni kon sa ziar ci sëriñ bi moom wut am doggantal wara ko wutal app mhm. sama xel loolu lañ njëkk dem nag saa su ma déggee baatu ziar waaw <clears throat> bu dee bu dee nag euh, par exemple lu mel ne Cheikh Mahamadul Muntaxa nga dun danoo bokk ak moom dëkk bi hmm. euh, daanaka mën nañ ne euh, ay bis gu ne mën nañ koo gis bu nu neexee gis googu nu koy gis Euh, kon dafay mel ne loolu kon du ziar mu ne su ko jàppee ziar waaye jóg dem ca moom nga xam ne moo lay ci nga dem ca moom seeti ko euh, xamal ko ne ko sa mujj mu jaa ngi nii day mel ne genre beneen yeesu lay nekk boo xam ne si day dox sa diggante ak moom loolu tamit euh, ban taxawaay lay am ci murid gi par rapport ak gis bi nga xam ne si moom da koy gis nii quotidiennement wala tey mën mën naa tase ak moom ci jumaa ji wala yu demee noonu. waaw jërëjëf mm-hmm. ngay laaj mm-hmm. ni day ni yow da nekk nit tasawuf moo tax nga bëgg teqale yooyu gën a gën a leer <laughs> ndax tey boo xoolee <laughs> eh, li ngay wax noonu ci misaal rek li dalee ci Sëriñ Saliou Mbàkke ba ci Sëriñ Muntaxa Mbàkke mii am na kàddu yoo xam ni ñu ngi koy jëmale ci daar yi mel ni ku ñuy xamal ni mm. jëlul woon sax ñuy jàpp ab bis di ñëw di ko ziyaare si ngeen na mu ko waxee mooy nan mm. danañu seen lépp ziyaar la mm. ndax lépp luy firndeel ziyaar ci ay jëf ak i wax ak i jëflante mhm. day mel ne Hizbut Tarqiyyah dafa sax dàkk di ko siq ak sëriñ bi mhm. ba ci àddiya du fa jóg mhm. kon moo tax suñu Saliou Mbacke noonu lañu ko daan waxe seen lépp ziar la sëñ Mountakha mi itam kàddu yooyu feddali na ko ak Hizbut Tarqiyyah waaye ci misaal rek booy xool tey taalibe bi ki nga wax ni sax moom bis ba ne am na di mën a janook sëñ bi am na koo xam ni mel na ni amul tawfeex jooju mel na ni tey fam nekk ak sëñ bi sorente na waaye moom itam wóolul mu mën a yegg foo xam ne di yëg nii bis ba ne mi ngi jaar sëñ bi ndax lan sëñ bu mag bi wax na aw bayit yazuruka ko min ni xaysuma kuntu yaa mox yi fu aadi wa ruuxi bil busharaati saa tey ji waxe yonent bi saa sam ni ko fu ma mën a nekk ak fu ma mën a nekk waxtu mu mën a doon sama ruu ak sama xol mi ngi lay ziyaare kon taalibe bi tey diggam ak sëriñ bi war naa takkoog moom noo xam ne fu mu mën a nekk war naa mel ni ku nekk ci kippaaru sëriñ bi mhm. waaye nag lii tey mhm. euh, di jëf yoo xam ne day ànd ak jóg mhm. dem fekk sëriñ bi loolu li muy firndeel lu yaatu la lu bari la ndax tey soo nee sëriñ bi man mii sama ruu ak sama xol bëgg naa mun takkoog sëriñ bi noo xam ne fu mu mën a nekk dama yëg maa ngi ci wetu sëriñ bi loolu xam la moo koy dëggal. su dee amoo gàllankooru jug dem ci moom. Hmm. su fekkee amoo gàllankooru jug dem ci moom. Hmm. waaye su fekkente ni li la war ci lu mu lay liggéey loolu li la war ci ay farata li la war ci li la diine jàngal ci taxawaay yoo war a taxaw. Hmm. tax na ba waxtu bu ne ngay ne fay moom. mënta nekk te boo ko bëggoon def sax mu digal la ngay dem di dikk. kon jaadu na nga am waxtu yoo xam ne da ngay firndeel ni tey man fu ma mën a nekk su ma seen gisul rek day mel damaa nekk ci la may nekk loo moo tax gisuma waaye kon moo tax nga war a jàpp ay waxtu ak i bis yoo xam ne soo ci amul benn ngant ngant boo ci mën a am itam dégg nga la wax waaw waaw waaw mhm. nee na laayam na am nag bon dun min yi mhm. loo sori sori sori sori sori sori waaye boobu mhm. wunul tee ngay jóg di ko ziyaara si wax na itam ni lu dox sa de moom moo xam mooy ay jafe-jafe ay xur ay doj da ko war a jéggi ngir ñëw di ko ziyaare si ndax ñëw gi nga ñëw di ko ziyaare si euh, maanaam force la occasion la boo xam ni yi nga ci war a mën a firndeel dafa bari yi nga ci war a mën a firndeel mhm. ci yoo xam ni yuy tax ñu dégg li ñuy wax ni bu ñu waxee baatu ziyaara mhm. borom xam-xam yi fi jaaroon di xam le ni moom mook ziyaada dañoo bokk nu ñu leen di tënkee moo tax foo jógee ngir ziyaara mhm. faw di nga am ziyaada mooy di nga am dolli ko ziyaada mooy dolli ko li lay may dolli ko nag mooy lan ziyaare dafa nekk ab fursa boo xam li nga mën a wane bari na di nga gis koo xam ne bu jógee ziar sëñ bi hmm. su ko waxee sëñ bi ak boo ko waxul sëñ bi yëpp sëñ bi dina xam ne kii moom sopp ko moo tax mu ñëw ziar si ko hmm. waaye ci biir hmm. kii bi ñoddi ko ba mu ziar sëñ bi waaye moom mu yëg ni sama ziar bii nag tey xam naa ne ziar cant lay doon ah. dama war a sant sëriñ bi kon boo di ko ngir sopp sëriñ bi rek sopp sëriñ bi dafa bari ngëneel ndax bokk na ci liy tàbbal nit àjjana su ma waxee wut sax ci diggante taalibe bi sëriñam yonent bi a alayhi wasallam moom moo jàngale woon al mar'u ma'a man ahabba mhm. bu ñu demee ëllëg àjjana kenn ku nekk yàgg nga soppoon yéen bokk fenn foo yéen nekk ci biir àjjana mhm. kon cofeel googu kon njëriñ a ngi ci d'accord wajhu alladhi yuhibbuni yabyaddu yama wajhu shuhada tabyaddu mhm. bu ëllëgee ñi sopp sëriñ bi seen xar kanam mandarga mi nga xam ne xar kanam yi shahid euh, yi euh, moo nekk loolu ma nekk seen xar kanam ku leen gis xam ni da ngay daa ñii xanaa dañoo shahiidoon fekk li leen may mandarga moom mooy lan sopp sëriñ bi kon njëriñam ci da ngay gis koo xam ne tey bu dikkee di ziar sëriñ bi day wane ne tey damaa siyaar si ngir lan fedd li sama jaayante mhm. jaayante gu dëggu mhm. laqad radiyallaahu anil mu'miniina mhm. iz yubaayi'uunaka tahta shajara sa jaayante bu dëggoo li ci nekk ci ngërëmal suñu borom waaye itam force la boo xam ne tey da sëriñ bi janoog sëriñ bi yaa ngi dégg ci njëriñi sëriñ bi xool rek fa nadratul xubbi min alcheikhi ila muridihi hiya almazaya wal ola xolub cofeel bu la sëriñ bi xool nee na mooy ay daraja ah, yi gën a kawe mm-hmm. ñeel taalibe bi mooy ak yëkkati ko gën a kawe ñeel taalibe bi kon fossé yi nekk kon day mel ni ko lim waaw donte dinañ ko jëm <laughs> allah eh, waaw su ma la déggee daal day mel ne kon aussi euh, maanaam euh, ziar aussi bari na ay ay ay ay hëdëf maanaam ay ay ay objectif li koy tax a jóg mm-hmm. waaw nga xam ne kon tey mën ngaa jóg ne maa ngi ziare ci sëñ bi ne mm-hmm. nangam moo ma tax a jóg wala ngay ziare ci sëñ bi ne nii moom ma tax a jóg wala maa ngi ziare ci sëñ bi wala damaa ndax damaa bëgg a feddali ko ah. wala damaa bëgg a wala damaa bëgg a feddaliwaat sama couleur ak moom ci am solo lool maanaam yéene ji daal am na ci solo lool mm-hmm. te jubluwaay nga boobu mm-hmm. ni mu ci amee solo mm-hmm. ki yàlla dimbali nga xam ni suñu borom moom jeexalu dara suñu borom euh, borom kàttan la dafa mën a maye xam looy bàyyi boo amee fuloo nay def mooy lépp loo xam ci euh, njëriñ ak force boo xam manees na ko am ci jaare nga dajale lépp ni li moo tax a jóg ndax benn xeetu jaam yàlla manees euh, lim mën na cee fasaale lu baree baree loo xam ni mhm. man nga ko am mhm. te boo ca façon benn rek benn boobu nga ci am kon yëpp da nga ko cee war a bàyyi xel ci li nga xam ne moom moo ñu euh, war a tax a jóg ci ziar mi ngoog sëñ bi looy sof ci loolu jërëjëf sëñ Modou ñuy sant bu baax sëñ Aliou Guèye euh, ñu gis ci ñaar ci li nga xamante ne indi na ko mhm. li ci jiitu mooy Sëriñ Tuubaa moom njariñ li mu ëmb tax na fu mu mës ne ay mbooloo ñoo yëg di ko siyaare te nag mhm. euh, du fii ci réew mi mhm. du ci Thièyène du njaareem mhm. du gànnaar du fenn foo xam ne jaar na fa te mbooloo mi duñ ko dikkal loolu nag euh, li ko def mooy ci biir ñooñu sax am na ci ñoo xam ne daanaka day mel ni séqatuñoo kenn luñ koy ziyaare waaye dañ leen war a ziyaare ndax liggéey nañu ba am ngërëmal yàlla suñu boroom ku tawasul ci seen tur suñu borom faj sa aajo ku ñaan ci seen barke loo ci ñaan suñu borom defal la ko mhm. kuy wut kaaraange boo làqoo ci seen tur mhm. suñu borom musal la ca la ngay la la ngay la ngay la ragal mhm. ku ñëw fi seen barab sukk fa aajo joo fa am suñu borom defal la ko sëñ Tuubaa nee na ñooñu ak dara ji ñu am ak fa ñu toll ci seen borom nee na man dañu jóg ci samay samay bund kër di ma siyaare si te nee na ñooñu mooy waa ahlu badrin ak mboolem ñi nga xam ne dañoo dañoo shahid ci xare yi sëñ Abdou Lahad dafa ni jataay moom sëñ Tuubaa daawul weesu euh, laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi ahlu badrin jundullahi jibril amin wahyullahi nee na ñi miinoon jataayam miin nañu loolu ci làmmiñam ba yaakaar nañu bu ñu génnee dañu dee Seydina Jibril wala ñu dee ahlu badrin kon ñooñu daaw ñu jóg ci kër sëñ Tuubaa mm-hmm. mu firndeel ko ci beneen bayit boo xam ne ñaari bayit yu nekk ci diiwaan yi nga xamante ne def na ko ci cheikhu ramadan muy inna lazina shahidu fil mahraki mujahidina kulla abin mushriki mhm. lii qaadara bii maa bii yaxbitu nii mhm. kullun wa kullun zairun li watani mhm. nee na ñi nga xam ne dañoo xare shahid ci xare yi doon xeex ak noonu yàlla suñu borom yi nee na may yi ma suñu borom defal dañ ma ci ñee ba kenn ci ñoom du dañ di jóg ci samay buntu kër di ma siyaare si moo tax nag euh, sëñ Ibrahima Diop almashar yi waxoon ko ne ko mhm. yow de ni ñuy gis nit ñi ñuy def ci sa buntu kër mhm. bis bu ne mhm. ku ko bëgg a xam na dem ba màkkatal mu karam xool bu bisu aj tawaaful ifaada am mu jàkkaarloo kaaba gi gis ni nit ñi def ne ko ni nit ñi def rek sa buntu kër gi bis bu ne noonu lay mel taranaas afwaajan ila baabi daarihi kam makkata yowmal hajji akbar lil amal am beneen naar boo xam ne dafa ni sëñ Tuubaa yow de li nga ëmb ci njariñ ëmb ko ci teraanga ak lu baax ak yiw ak luy dimbali nit àddina ak alaaxira soo nekkee ci jéeri ji foo mën a ne nit ñi di la fa fekk si waaye balaa ngay xam ne li nga yor nit ñi mënuñu ko woon ñàkk mm-hmm. nga nekk ci biir géej gi dinañu xuus ak gaal yi fekk si la jëlee naa sax Sénégal ak gànnaar yooyu jege na waaye boo nekkoon ca gannaaw Hind wala Turquie nit ñi dina fa fekk te ki wax loolu sañ Touba mi ngi bokk ci xaalaw yi yu yi nga xamante ni mm-hmm. ku ne xam na ni seen diggante ak bi sallallahu alayhi wa sallam lu wér la ñu ay borom xam-xam kon sëñ bi gis nga kon ziyaare ko mm-hmm. kenn du ci doyal mm-hmm. loolu la waxoon sëñ Touba fa fii ay ardin kunta yantaabu kal wara walaw xalfa ardal hindi wa siini wa turki kon foofu sori na lool wa in kunta fil barri atatka rikaabuhum mm-hmm. wa in kunta fil bahri atawka halal fulki foofee nag ci gànnaar lii firndeel ne mbooloo fu sëñ Tuubaa mose ne ñooy dikk di ko ziyaar sëñ bi moo ko waxal boppam lahu sanaa yi wa ridwaani bila saxarin musxaadari min bani dayman ansaar lillaahi kulli mm-hmm. la daa abaari makrumat min haal taxal naa wa fiiha jàmm man saara kon nee fa mu nekkoon ci teen yooyu nga xamante ni sori na mm-hmm. tàng na ñàkkaru ndox nee na ay mbooloo yu mbooloo ñoo fi fekk di ma ziyaare loolu nag tey jii mooy dox ba ci jataay Cheikh Mamadou Mountakha bi kon mhm. day mel ni la ñu doon wuti mhm. wóor nañu tey jii mhm. Cheikh Mamadou Mountakha moom la ëmb tey ku jóg te sëñ Tuubaa rek taxalaa jóg nga ñëw fekk ko ci jataayam bi bu la muñee sa aajo faju loo ittewoo it booy ñëw mën ko ci am kon sëñ bi moom ziyaare ko Euh, day mel ni nit ñi xam nañu ko. Mhm. taarix itam wane na ni fu mu mës ne noonu rek la fa nit ñi ziyaare. gaar bu mës a wàcc mhm. euh, tubaab yi ko yóbbu woon yitte dana leen doy ci xàjji mbooloo mi. <laughs> ak taxaw leen fii. bu ngeen dem fii bu ngeen jaar fee. bi mu jógee ci géej gi ba wàcc ndakaaru ci poor bi noonu la mel. Mhm. ba mu wàccee ndar di jëm kër gouverneur noonu la mel. daaru salaam ba mu fa wàccee noonu la mel. sababu demu gànnaaram. ginnaaw dogalu suñu borom sababu saayir yi mi ngi dale ci mbooloo muy sotti ko ci daaru man naan ba tiital tubaab yi ba jàpp kon moom fu mu mësa ne rek noonu la mësa mi ne xal taxal naa wa fiiha jama man saara te yaakaar naa tey ku dem ci daayira yi bu ñu mhm. ziyaare Cheikh Mourou Mountakha dañ leen di lim dëgg la daayira Touba Pikine mhm. Masaalikul Jinaan Géejawaay mhm. mu nawiru suddoor ngaay mhm. te ñëpp duñu mën a dugg seen i jëwriñ rek la ñuy dugal ci biir mbaar mi ñu nuyu sëñ bi joxe seen àddi ñu ci ne siyaare ko kon loolu mooy wane ni njariñal siyaare sëñ Touba ah nit ñi xam nañu ko démb waaye day mel ni tey itam nit ñi ngi gis njariñ ba tey dëgg la mu ngoog eh, ndax firnde firndeel ji mooy maanaam nii nit ñi mag ñi daan nërëm nërëm ci sëriñ bi nga xam ne fu mu a nekk ñu fekk ko fa yaakaar naa Gabon rek xanaa lañ ko la ko mbooloo yi fekkut waaye fu dul foofu a léegi nii dañ mel ne Cheikh Mamadou Mountakha boo ko dee xool jëmmam ji toujours noonu la maanaam nit ñi fu sëriñ bi nekk euh, bu fekkee ubbi na fu mu mën di nekk rek xanaa ci jamonoy corona yi yu mel noonu waaye lu dul loolu fu sëriñ bi nekk rek danañ ko fa fekk euh, ziyaare ko maanaam nga xam ne kon dafay mel ne euh, murit bi a toog muy mel ne acier boo xam ne daf koy xëcc nga xam ne balaa am jàmm daa dem ba ca moom toog ak moom waxtaan ak moom wala lu dul loolu mu toog di ko taxaw di ko séen waaye na ko na ko na ko yitteel na ko ñor na ko soxal ba nga xam ne sii dana jóg dem euh, seeti ko mën a barkeelu ci jëmmam ji moo xam jox na ko loxo wala jox ko loxo moo xam jox na ko dara moo xam la jox ko dara waaye mu barkeel ñu mel ne mar woowu nga xam ne si taalibe bi da koy mar sëriñ bi yaakaar naa foofu tamit faaw nga duggaat ci tuuti suñu moom lañu. waaw dëgg loolu li koy def mooy. Mhm. Euh, murid mhm. sëñ bi moo leen di dundal. sëñ Basiiru mhm. daf ko leeral ci miinul baaxil xadim di mhm. wane misaalum mbonaat mhm. muy li ñuy wax nga xamante ni doom yi da leen di xool ak ñu rekk wala mu fóon leen ñu rekk <laughs> waaye gis ñu fu mu leen di nàmpale gis ñu lenn lu muy for di leen ko jox euh, loolu nag bi bu ci nekk dafa am buumu cofeel goo xam ne maanaam mooy suuxat diggam ak sëñ bi ndax murid yi lu ñu def rek ci sëñ Tuubaa lañu ko rek yu akidu kulli habla hubbi wa xidmati mhm. kon nee na sama sama sama sama buumu cofeel mhm. dama koy dëgëral mhm. ci liggéey bi nga xamante ni maanaam moom laay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo waral nag saa boo xamante ni génn na ndax sëñ bi dafa ni sëriñ bi ngay siyaare ji nee na benn xool bi mu lay xool yàlla suñu borom dana la ci defal loo xam ne euh, loo jàmbaare jàmbaare ci jaamu yàlla mënoo ko ci am mbégte moo am benn bis ci mbégteem ndax bokk na sax ci ziar ñu ne la booy dem ci sëñ bi koo yaakaar ne bu ko sëñ bi gisee bég war nga ko lijjanti ba ànd ak moom nga gis ne kon loolu yëpp kon ci li nga xamante ni moom la lay jural ci ziar bi nga xamante ni moom nga ziar yi sëñ bi te boo xoolee sëñ Touba euh, bi mu jógee ci géej gi di ñëw laata muy ñëw fa mu barab yi mu jaar mhm. ginnaaw bu natt yi jeexee rek am na fa ñoo xam ne mm. waxuma la ñoom seen jëmm waaye seenu njaboot dañ ko ko jëbal indaale ko joxaale ko te bañ ko fa yóbbu ngir tumuraanke ko tax ku ne dégg na sëñ Ousmane Konté mm-hmm. nga xamante ne Gabon lu jóge woy juróom moo ko jox sëñ Touba mm-hmm. nga xamante ni bon lañu ko bindal mm-hmm. mu jaay ci saxaar gi ñëw baag si njaaram ci sëñ bi te foofu sëñ bi fa mu nekkoon am na fa ñoo xam ne ba muy ba muy ñëw dangay ngay dégg sëñ Moussa di limal ku ñuy wax Jara Fay di la ku ñuy wax Lamine Diop mm-hmm. di la wax ku ñuy wax Demba ku Dieye mm-hmm. nee na kenn ku ci ne mm-hmm. addiyee yi ñu doon indil sëñ bi te boobu kat mu ngi nekk ci tumuraange ci ku ñuy jàpp am mbooloo yoo xam ne dañuy jébbalu ci moom kon nag bu ñëwee Sénégal kon taxul ñuy wax kon bi saa su nekk rek bu demee ci sëñ bi dafa am benn nitu yàlla boo xam ne dafa ni ñun de suñu musaana tayel ci wàllu jàmm yàlla wala ñu dem ba gis ne daal Pastef bi ñu amoon amatuñ ko dafa am nitu yàlla boo xam ne dañu koy seeti maanaam bu ñu ko xoolee rek mu xool leen suñu delloo dinañu mën ci jaamu yàlla loo xam ne ay at ci ginnaaw mënuñu ko woon kon ni nga xamante ne batterie su jeexee dañ koy chargé mhm. noonu rek la gis sëñ bi di def ndax maanaam euh, dafa am jeexit gu wér goo xam ne mhm. xool sëñ bi mu xool na daf ko am mhm. sëñ Tuubaa bi muy leeral ci silkul jawaahir yi xeeti sëriñ yi am dafa leeral lan mooy sëriñ taxlim mooy sëriñ buy jàngale xam-xam leeral sëriñ seexu tarbiya mooy kan leeral seexu tarxiya dafa gudd waaye dañuy taxaw ci seexu tarxiya mu ne dafa am ci saaba yi koo xamante ne nee na keroog bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa nañ ko boroom mm-hmm. dellu nee na kenn ku nekk ci ñoom mm-hmm. dafa mel ni daal yëg na ni su doon tabax la moom am na euh, maanaam euh, wet gu rëy gu ci fàq goo xamante ni moom gisul yëgul bi muy daanu waaye yëg na ni dara newtu fa mm-hmm. dëgg la bi ñu koy wax di ko wax ba am ku njëkk ci ñoom mooy maa leen koy firil ne leen xanaa xamul leen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkkaarloo gi ngeen daan jàkkaarloo moom jëmmam ji mm-hmm. maa liy jóge ci moom di ñëw ci yéen mm-hmm. courant boobu leen di maas moom ngeen amatul leen <laughs> mën a maasee noonu rek <laughs> moo mu ne la kon gis nga kon uh-huh. eh, xool gi nga xamante ne maanaam moom lañ koy xool mm-hmm. ak gis gi ñu koy gis moo a gis gi ak ñax gi gis mu yemuñ kon sëñ bi moom di ko ziyaar jàkkaarloog moom boo amee taw féexu tawféexu saafonteeg moom wala nga jox addi du mhm. bokk mukk ak koo xam ne mhm. dafa toog ca ca sori sa ndax waxtu woowu am na luy jóge ci moom di ñëw ci di ñëw di ñëw ci taalibe bi loo xam ne su delloo mhm. dina gis maanaam jeexit ndax saa boo siyaaree ba dellu di nga ah. ànd ak mbégte ak cawarte te boo sañoon coono boo ci de ne waa ndax suba duñu woote waat ziar ndax mbégte mi nga ngi lay santaat bu baax a baax di sant sëñ Aliou Guèye moom tamit ci buntu am solo yu nga xam ne si ci ngeen dugg léegi xam naa kon dañuy ñëw ci sëñ euh, Mouhamadou Mourtala xam ne moom it euh, mi ngi ci euh, fi nga xam ne moom mooy direction générale yor commune nekk ci comité de pilotage bu ziar bi muy lu jëm ci wàllu organisation geek ak euh, yu ni demee euh, sëñ laa mel na kon foofu ci direction générale yéen it yéen a ngi waaj waajtaay wu mag a mag a mag euh, bëgg naa rek nga dellu siwaat ci waajtaay wi naka la ko direction général di waajale ak coordination bi aussi ak yeneen daara yeeg yooyu loolu tamit nga dellu siwaat ci naka la naka naka naka naka naka leen ngeen koy doxale ak it dellu siwaat aussi ci motivation wu ziyaare bi lu tax ngeen lu tax ngeen jàpp ko mm-hmm. léegi mm-hmm. Euh, laaj ko sëñ Alioune ak kii ak sëñ Mouhamed Lamine euh, ziar day loo xam ne day aada ci lislaam sëñ Touba ñëw yeesalaat loolu bàyyee ko fi muy ndono ci yoonu murit moo tax murit waxtu wu nekk ak fu ñu mën a nekk dinañ jóg dem di siyaare ji seen sëriñ te kenn ku nekk sooy dem len don don dong dong dong mooy nga sàkku ci mhm. mooy mu bëgg ngir nga mën a am ngërëm kon sa yitte jëpp mooy nooy def ba mu bëgg Hizbut mhm. Tarqiyyah nag yàgg naa siyaare ci euh, waxtu wu nekk mhm. loolu moo koy tax a jóg ngir lan sàkku ji ngërëm ziar bi nga xam ne moom la ñuy waajal nag Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mhm. euh, jëwriñ daara ji sëñ Youssou yàgg na ko bëgg mhm. ndax melo jamono mhm. fi jaaroon muy wàllu tawat gi daanaka tax na toog nañ lu tolloog ñaari at yoo xam ne mbooloo mi jàkkaarlu wut ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ay délégation rek ñooy dem waaye ñu namm nag mboolem mboolem Hizbut Tarqiyyah ñu ñëw jàkkaarloo ak moom jébbal ko suñu àddiye mhm. feddali suñu engagement feddali suñu jaayante ak moom loolu sëñ su da ko maroon lool te day mel ne mar googu ko maroon mhm. day mel ne daanaka eggoon ci moom foo xam ne mhm. waxtu wu nekk mi ngi wax sëñ bi melaw jamono ji de Eh, waxoon nga ñu ne corona mi defu yàlla rek la nekk ci ndigalam di ko def léegi Mbàkke lañ bëgg daal nga wax ak moom mu ne diis may ñu tuuti mm. ngir ñu daw ñëw ndax namm nañ la mënuñoo ñàkk ñëw ci yow di ko sàkku di ko sàkku mm-hmm. ba yàlla dogal mm. Cheikh Maodo Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér nangul ko ko ba sëñ suñu jàkkaarloog mbooloo mi woo délégation mbooloo mi yëpp nag lam leen xamal. mooy am nañ tawféex gu rëy tawféexu jàkkaarloog sëñ Touba mbooloo mi yëpp ñoo ànd dem. tawféexu firndeel ko ak feddali ko sunu jaayante sunu engagement waaye tamit jottali ko sunu cant loolu mënta ñàkk faw ñu def ko. ak cant nag du ay wax rek waaye jëf ju mat sëkk la war a doon fàttaliwaat mag ñi nan lañ daa siyaare ji sëñ Tuubaa nga xam ne suñ daa dem duñ bàyyi dara lépp la ñu bupp yóbbu ba gone ndaw yi nga xam ne xamuñu sax daanaka ak soxna yi nga xam ne fi dëgg dëgg dëgër guut ci ñoom su defu nang danañ jooyoo ndax jàpp ne sëñ bi yóbbu na lépp mu ne ñu nag dama bëgg ñu sori Cheikh Modou Mountakha Mbacké li nga laaj léegi lu tax mu am solo lool soo seetee am na film yu ñu teg ñuy seetaan ngay gis ay genre yoo xam ne ay camion matt ngay gis ay camion ceeb ngay gis ay ay ay mobilier ngay gis ay ay ay armoire ay bibliothèque ay lal ah, gis yoo xam ne dañuy gis ne ay wogg la ñuy yóbbu ah, di yóbbu cere ah, di yóbbu eh, ay saabu di yóbbu ay bagages yu bari ay alio ay xalima ay lépp. ay cin ak ay bool ay cin ak ay bool lépp. Mhm. loolu lenn rek ko waral mooy ka nga siyaare ji nga sakku ngërëmam bëgg mu teg bët bëtam teg dara ci lenn ci loolu rek. moom ci xol bu sedd rek yow sa ajo fajo soo seetee jamono yooyu si ëpp nag jamono yi mhm. sëñ Saalihu la woon mhm. nga xam ne dafa yore daara ku yore daara nag nga siyaare ji ne dama yóbbu ay toni toni ceeb saabu dama yóbbu ay paquet paquet paquet mm-hmm. ndax xam ne lam yoree ci daara ci xel koom ak lu ko wër mm-hmm. loolu yaa ngi ngër ngërëmam ah. ci la nga xam ne ma ngi ci nekk ci jàng ci daara ya mm-hmm. ñu wax nga ne ay aliwu lu dul jeex ci aliwu dana ko yóbbu ndax xam naa ne ndax xam naa daara yi na mel ay xalima mu jarale nga ne naa seet xalima yi gën ci xalima yi mbañ fàll ñu ne fan la am ñu ne da nga dugg biir Saalum gi dangay dem ba boru Bettenty da ngay dugg Locco soo demee foofu am na ay mbañ fàll nga ne daan ci wut cent vingt quatre mille mbañ fàll ngir boole ko si ziar bi ay kaamil alxuraan nga ne kaamil du doy fu ñu mën a amee kaamil alxuraan ñu ko indi lépp loo xam ne lu bëgg su daara la nga ne naa ko wut mu dem fa yitte ji dafa toll woon foofu mhm. circonstance bi toll woon foofu ñu sakku ngërëm te bunt boobu ñu gis ne mën nañ cee amee ngërëm. ñu daw song ko. Ah. gis nga muy lu am solo lool. waaw loolu sax kay. léegi nag. Mhm. man da ma ne. Mhm. waaw mais yéen seen ziar bi passé. gisuma camion ceeb yi. waaw ah. gisuma camion diw yi gisuma camion nangam yi. Ah, mën na la nag mhm. dañuy dox di ànd ak jamono. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. doo gis mu wootee ab liggéey. liggéey bi. 37 milliards yu teg moo koy def te dégg ngeen li mujj waxtaan nañu euh, euh, da ko wax nañu ñëpp dégg ko mu ne salaaw di liggéey bii li koy dajale ngir def ko su paree lu ñu toll dañ ko dajale ngir yor ko ngir doxal ko ngir mu wéyal ko kon nag ku toll ci tabax université bu mel bu toll ne 34 milliards soo fee jóg xamal la ay koppar yu weex tàll moo ci baax moo tax suñu jëwriñ ji fi nekkoon sëñ atu yàlla na fi yàgg lool yàlla yàlla dolli ay leeram mhm. euh, dolli yërmandeem ca moom mhm. bañ ne day siyaare booba mhm. ba mu tuddee ab lim dënn yu bari dañoo rëcc <laughs> mu ne waawoo sëñ Muntaxa di woote liggéey mel nii ba noppi ah ñuy yox yoxi déedéet waaye ba mu ko tuddee ñu soññete suñ biir kenn ku nekk yitteem ak pas-pasam mu feeñal ko bañ dajee ci kanamu sëñ Muntaxa yóbbu nañ fa loo xam ne kawe na njort sëñ Yuusu nag daal di ne la taxoon ñu laaji koppar te laaju ñu leneen dafay nekk ba tey liggéey yooyu mu ngi fi ba tey tey koppar koy def te dëgg la naam sëñ bi jox nañu liggéey ji kër xasida ña nga fa nekk di ko def mhm. mi ngi dox alhamdulilah naturellement normalement waaye nag liggéey université bi pareegut kon dem siyaare ji. Mhm. yóbbu koppar ba tey jii mi ngi fi. mun nañu nag la suñ jëw jëwriñ jee waxoon mhm. fit yi rëcc. waaye ñu wóolu sëñ Tuubaa yaakaar ko song ko mhm. am ci lu kawe njort nañ xam ne murit amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am. moom tamit daal di tudd ab lim boo xam ne ñëpp dañoo xoolante. ñu fa yéene soññante waaye fi ñu toll nii saa yu kenn xoolee kanamu moromam ah. day leer nañ ah, ndax xam ne loolu moo waxoon doon yéene mm. kenn ku nekk jóg ñuy rëppatal daw wutali ko ah, day mel ne loolu xel yaa ngi dal bu baax a baax ci ne mm. objectif boobu bu ñu atteindre kon mm. motivation mm-hmm. mooy dem suñ sëriñ di suñu yaakaar tey di suñu yaakaar ëllëg mm-hmm. jotalu suñu cant cant goo xam ne gu wér la mm-hmm. ndax nangu naa doon suñ kilifa muy lu am solo lool. nangu naa doon suñ kilifa. di ñu digal di ñu tere. nangu naa di ñu liggéeyloo. muy lu am solo lool. ndax sëñ Tuubaa su lu bëggee dimbale da lay liggéeyloo. te sëñ bi dañuy liggéeyloo. loolu muy cant xam ne suñu bëggoon yem ci loolu rek mën ñoo ko doy. loolu muy liggéeyu cant. waaye nag ñu xam ne moom Cheikh Modou Mountakha Mbacké. lii mu naal dongay la woo mm-hmm. xamal ne duñ si joxe mukk loo xam ne lu doy la mm-hmm. su liggéey bi àggoon tamit sax mm-hmm. dañu continuer di joxe ngir yor ko mu ne ko nañ dajale lu fa dem kon motivation bi nga xam ne moom la suñu su am te ba mu dajale mbooloo mi wax ko kenn ku nekk mu mel ni am na luy bax sëb dënn di bax di buqi nga fas yéene doo dese dara ngir dem ci soxna yi taxaw noonu kenn ku nekk ne man kenn du mu ci gën a gore mhm. ah, kenn du mu gën a góoru ci lii mhm. gone yi kenn ku nekk ñëw taxaw sa waajur man nangam man nangam mhm. loolu ñu boole ko ngir daw sakku ci ngërëm moomu tam ci yaakaar ne suñ dajeeg Cheikh Modou Mountakha Mbacké buti yërmande yem ñuy xool loolu mooy faj suñu aajo àddina faj suñu aajo alaxira ñu tàll ko suñu loxo mu ñaanal ñu ñu wéyaat suñu liggéey dëgg la suñu dama am ko ku ma doon waxtaanal yaakaar naa sànq ci ngoon rek la mu ne ma Hizbut Tarqiyyah moom euh, dafa mel ne duñ doyal ndax li tax duñ doyal mooy euh, maanaam liggéeyub sëriñ bi gi ñu ci xir euh, sëriñ bi dénk na leen université bi am na lu mu leen fa jox ñu di ko liggéey wax nga ko léegi nii yaakaar naa seen liggéey tamit ci yoon wi signal liggéey wax na ko léegi seen bis bu set bis bu set rek maanaam ci xëyal sëriñ Touba ak gontal ko ci ngeen di nekk waaye dafay mel ne toujours da ngeen di amaat aw mar woo xam ne yéen li weesu da ngeen koy da ngeen da ngeen koy suul maanaam day mel ne defu leen woon dara bis set rek day mel ne da ngeen da ngeen di yeesaat maanaam dangeen di mel na luy xaaraat ndigalul sëriñ bi wala léeg-léeg sax du ngeen ko xaar maanaam soññante gi da ngay gis maanaam euh, ardeur bi nga xam ne si moom moo ciy nekk ak yàkkamte gi ñuy yàkkamte liggéeyal sëriñ bi ba ci ziyaare bi daf koy daf daf koy wane ak compétence bi nga xam kii bi euh, nu mu tuddati course bi nga xam ne wax nga ko léegi ci diggante góor ñeeg gone yu ndaw yeeg jigéen ñeeg nga xam ne kenn ku nekk da bëgg a fës ci mbir mi loolu bëgg naa nga nga nga dikkal ma ci motivation boobu daal lu ko lu ko loolu la ah l'islam la sëñ Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. sëñ Tuubaa mësta doyal si yonent bi mësta am sago ak yonent bi sallallahu alayhi xoolal li bind lépp di ko tagg xoolal li mu def lépp di ko liggéeyal ah. dem na ba àgg ci ne mm-hmm. cofeel gi nga xam ne am na ko ci yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. lépp loo xam ne am na ko mm-hmm. muy njaboot muy ab dëkk ah, muy muy muy ay doom lu mu mën a doon moom cofeelam ah. dem na ba dee mel ni loolu da da koo far hmm. loolu cofeel hmm? Hmm. ak xam ne kii nga xam ne moom ngay topp di yonent bi sallallahu moo gën ko yàlla sàkk xam ne moom yonent bi sallallahu moo tax lépp lu am ci kaw suuf am ci darajaam yàlla sunu borom sukkandiku ah, ba def ba def loolu sëntuwaay ñëw xam loolu xam ne kii ku mel ne moom mës am ci ko suuf te du amatu mukk maram ci moom mënta doy mukk loolu nag mm-hmm. nga xam ne moom la meloon ci diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. mag ñam yoroon tàggat leen mm-hmm. ci yoon yàlla sunu borom xam xamal leen yàlla sunu borom bañ demee ba mànd ci leer yàlla sunu borom yi bañ wëlbatikoo cofeel gu mel noonu lañu am jëmale ko ci moom moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall ah. mas koo gis mu wàcc mukk <laughs> moo tax mag ñi mag ñi mag ñi ah, ku sëñ Tuubaa woon mm-hmm. ngir bëgg laa wàccee ne man ngaa dem mm-hmm. da nga jàpp ne man xanaa sama bon ngeen ma tax sëñ bi yebal ma damay alku loolu la woon ah. mooy mar gi ñu am ci yàlla suñu borom mm-hmm. ak lañ leen woon tax na ñoom bëgg ñoo gisati dara bëgg ñoo amati dara lu dul sëñ bi loolu nag mag ñooñu loolu lañ fi bàyyi muy ndono kon li ñuy def ñun li ñuy def nii du lu bees de. waaw soo demoon si Cheikh Ibrahima Fall moom la fi bàyyi ndono. soo demee Cheikh Ibrahima Dieng loolu la fi bàyyi ndono sëñ ma jàmbu sa sëñ euh, Masamba Diop Samb moom la fi bàyyi ndono Cheikh Ibrahima Sarr Diagne Diagne loolu fi bàyyi ndono mboole mag ñu nga xam ne sëñ Touba moo leen yaroon. mar googu lañ bàyyi ndono ci sëñ Touba. loo def mhm. fàtte ko. jàpp ne amagoo dara jàpp ne la ngay ami mhm. tey jii nga ko war a am. loolu nag. day mel ne mooy ndonu lislaam ñu war caa jaar nga xam ne sañaatu Atou doxin woowu la daa dox mhm. moom daanaka lu mu xas weesu mhm. weesu na ko nekk ci kanam la ñuy wax moonte ah, <laughs> ne de uh-huh. xalifa yi nga xam ne moom lañuy siyaare ji ak ànd ak ñoom seen mbëg dana àgg foo xam ne da ngay yëg ne lenn rek rek rek rek rek nga la mën a fayee mbëg googu mhm. mooy lii ñu bëgg ak li ñu santaane nga fas yéene ci dee sag njaboot dee ci loo am ñoo xam ne lii lañ war a nekk muy lan njub googu njub mm-hmm. ak loo mën a yóbbu ci sëñ bi mm-hmm. lu mu rii rii rii rii rii sëñ bi njub gi muy gis si yow mm-hmm. da koy gën a la nga yóbbu kon defar jëmm yi nga xam ne moom lañu joxe day jiitu loo ñëw indi teg ci sëñ bi xam ne kii de li ma ngi koy sàmm ma ngi ciy mm. góorgóorlu dëgg la jërëjëf jërëjëf suñu Mourtala Sey ñu ngi lay santaat bu baax a baax kàdd yi am na solo lool macha allah euh, nañ ma bloqué élément boobu rek muy euh, kon cellule bi nekk Guinée Bissau hmm, ñoom danañ ñëw ci ñoom ci kanam tuuti ak suñu Amath Gueye euh, waaye ñu ñëw ci sëñ Maam Góor sëñ Maam Góor yow nga nekk foofu ci Italie ngeen di fa nekk ci daara ji aussi Euh, yéen it ngeen di waajal li nga xam ne si moom mooy moom mooy ziara bi xam naa di nga sànni tuuti rek ay kàddu ci li nga xam ne moom mooy ziara ci boppam ak euh, ni nga xam ne noonu la ko Hizbut Tarqiyyah di defee ak ni nga xam ne yéen ñi nekk à l'étranger aussi noonu ngeen koy waajale ak ni nga xam ne noonu ngeen daan waaje ziara yi njëkk yi ndax dana bokk wala déet ndax am na ay coppiku ak loo xam ne si dugal ngeen ko ci lu yees loo xam ne ziara boobu ren bii moom dana wuute ak ziara yi nga xam ne si moom moo fi doon moom moo fi daan jaar wala jëm ci wàllu coordination beeg yu ni mel bismillah sëñ Modou mhm. ñoo ngi siyaar bu baax a baax di sof suñu kàddu foofu rek suñu murtalaa jeexale te xam ni siyaar moom mm-hmm. daara bu tarqiyyah yàgg nañ ko waajal mm-hmm. waaye nag ziar bi moom dafa mel ni mm-hmm. dafa am laneen lu ci beesaat ndax lii ko suñ murtalaa waxee rek euh, ku seetlu 2019 ziar biñ mujj ziare mel na ni Euh, changement am na ci bu baax a baax. waaye ku ne xam na ni jamono fu mu toll rek. Mhm. ak la mu laaj ak nañ koy doxalee. Mhm. mooy li mu wax sànq nii. ndax bu fekkee ni sëñ Mamadou Mountakha mhm. naal na université boo xam ne si 37 milliards la. kenn ku ne xam na ni loolu jamono fi mu toll euh, dafa am lu mu laaj. kon su fekkee ni tey mbooloo murit yi. moo xam ñi nekk ci fii moo xam ñi nekk bitim réew. nit ñi kenn ku nekk loolu ku ci ku ci jóg di dem di siyaare ji sëñ bi mm-hmm. yaakaar naa la ca gën a tonawu mm-hmm. mooy dajale koppar koppar yu takkoo takkoo takkoo takku yët ko sëñ bi muy kon ku ne gis na ni daayira yi noonu lañuy def mm-hmm. waaye dooni maa ngi ci kër sëñ bi ndax ni ko sëñ àll yu waxe sànq rek sëñ Saliou siyaare bu ñu ko mosana siyaare mu wax ko ni li ngeen def lépp siyaar la waaye nag du tee ñu jóg bis boo xam ne si dañu jóg spécial ngir wanal yees lu jiwaat ci sëñ bi gën koo feddali sunu gën a fedd sunuy laxalaas sunuy laxasaay ngir xam ni eh, sëb sëriñ moom siyaare ji ko dalaa war saa su ne loola nag ñi nekk fii ci biir Touba nga xam ne si tey jii muy daara Hizbut Tarqiyyah Touba mhm. na ñu nekk Dakar comme ñu nekk Sénégal ñu neen ñu nekk biti réew la leen war moo nu ci war mhm. kon eh, jëf ji dañ ko war ànd di ko def mhm. su jëf ji weesoo teewaay bee tam mm-hmm. ñi ci man a teew ñëpp dañuy teew ñi nga xam ni xay na am nañ ay xat-xati gàllankoor mënuñoo teew it mm-hmm. saa su nekk seen yéene eh, fu ñu toll rek ñu nga fa ndax bari na ci ñoo xam ne tey jii moo xam lu mën a waaye tey jii bisub siyaar mm-hmm. fa ñuy liggéey ak lu mën lu mën a doon eh, du duñ xala xalaatuñoo xëy di liggéey dañuy toog moom teewlu siyaar ba mu jàll ndax dañuy jàpp ne bu ñu nekkoon Tuubaa gi ak lu ñu mën a def dañ koy bàyyi kon bu leen fekkee bitim réew itam lu ñu mën a def dañuy toog tooglu euh, ndax comme léegi boo xoolee tey ji almouridiya tey ji saa su ne ziar bu daan am hmm. dañuy dikk dañ euh, euh, en direct lay nekk da nga koy mën a seetaan comme ni ngay ni ngay toog ci sa kër télévision di ko seetaan wala nga ànd ci convoi bi dem hmm. yaakaar naa loolu benn poñ la ci ziar te tam ziar hmm. ay mbir moo xam ne si taal bi bu nekk daf laa war ndax euh, sëñ bi su ne tuubaale habdin muridin saarixin lahuma bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati kon loolu dafa dajale lépp mm-hmm. kon euh, euh, siyaar bi ngay siyaari sëñ bi mm-hmm. jël sa àddiyee jox ko mu gendiku la benn ge benn xool bu mu la xool. Mhm. boobee yaakaar naa mën naa faj àdduna li àdduna saa lu lu nekk ci àdduna rek. bu doon ay lor la mën na koo mën na koo jeñ. Mhm. bu dee eh, looy xëcc mën na koo xëcc muy njariñ mu ñëw. bu mhm. dee looy jiñ mën na koo jiñ. kon loolee benn gendiku bu la sëñ bi di gendiku rek. moo gën àdduna ak li ci biiram. te eh, loolu kon ziar daa mel ni. Eh, li tax ñu koy def loolu ci la ko. te kenn ku ne xam na ni mag ñi euh, dañ daan jóge fii dem ba Sarsara di siyaari ji sëñ bi te yaakaar naa booba def lépp jafe na mag ñi njaareem gi bi mu fi nekkee kenn ku ne xam na mag ñi niñ daan def mm-hmm. kon daanaka boo gisee tubaab yi Euh, li ëppan ci ci ci ci ci ci gàllankoor yi ñu daan gàllankoor sëñ bi. Mhm. mooy mbooloo mi daan jóg saa su ne. Mhm. di ko di tekk di nekk ci moom. ndax ñoom booba. Mhm. àdduna la ñuy wër te sëñ bi moom yàlla rek lay wër. waaye ñoom booba fiir gu ñu fiire sëñ bi ci àdduna tax na euh, defe nañ ni mbooloo mi su su su su baree ci moom rek. mën naa ànd ak ñoom jëfandikoo ngànnaay wala dara ci ñoom te fekk ne booba moom euh, lam leen wax yi lam leen wax leer na. inni ujaahidu bil xulum wa bi tuqaa moom xam-xam ak jaamu yàlla ci lay jihaad waaye du jihaatul ay ngànnaay mhm. te yaakaar naa kenn ku ne xam na ni tey jii soo demee bitim réew mhm. ndax euh, euh, loolu mu ni li sëñ bi wax ni simaamul war a xasri la dulaay fi di mhm. day feeñ saa su ne ndax kenn ku ne xam na ni tey jii di nga gis ay nasaraan yoo xam ne bitim réew la ñu nekk tey ji ay tubaab yoo xam si te jàppal nañ ni tey duñu du ñu xam luy lislaam mais tey ji dañu doon taalibe sëñ Tuubaa boo demee tey itali ma nga fa mhm. nga dem Amérique Espagne foo dem ci àdduna da nga fay gis kër sëñ Tuubaa yoo xam ne saa boo demee mhm. euh, euh, ay taalibe yi nga fa xam ne sii dañoo ay nit réew ma lañ doon mhm. nekkandoog nekkandoog murit ya comme ni ñu nekkee ak ñoom kon loola lépp liggéey sëñ Tuubaa la kon nag yaakaar naa loolu bu dee dox ba ñëw ci sëñ Mamadou Mountakha mi nga xam ne yaakaar naa ni mook daara ji moom mhm. kon kenn ku nekk xam na niñ melan mhm. kon yaakaar naa bu ñu dee waaj daal waaj siyaar mu jëm ci sëñ Mamadou ah, lu ñu luñu luñu lu ñu daan siyaare ah. war nañu siyaare lu ko gën a fulu kon siyaar bi spécial la war a doon mhm. siyaar spécial la war a doon boo xam ne si léegi bu dee foofu nag ci Italie ak sax ci Europe yëpp da mën a yóbbaale Europe ngeen di waajee siyaare ren bi waaw comme siyaar bi moom ni ñu koy waaja moom daanaka ni ko euh, daara yëpp di waajalee ndax direction générale euh, dafa am euh, pàcc boo xam ni moom saa bu ko defee nga xam ne tey bu nuy ko sëñ mun Mamadou Muntaxa mun Murtala waxee mhm. su direction générale comme jëwriñ sëñ Youssou Diop mhm. bi mu ñu koy sant di ko di ko di ko ndokkeel bu baax a baax mhm. ci initiative yi mu jël ci nii mu jëlee ziar bi mm-hmm. ndax tey ji mënoon nekk di ko waaj di ko waaj di ko waaj waaye dafa mel ni moom ni ko sëñ Mourtala waxee rek amul woon sago ci eh, bëgg ñu eh. ziar ji sëñ bi <laughs> ndax loola dafa am solo trop eh, kon loolu dañ ko ci indi cant gu rëy rëy rëy rawatina ñun ñu nekk bitim réew te kenn ku ne xam na li fi jaaran lépp ci ay gàllankoor ay gàllankoor ba nga xam ni mm-hmm. daanaka kenn mënul mobilisation mobiliser mbooloo mm-hmm. pour dem di ziar ji sëñ bi waaye nag dafa bi mu amee pas-pas beeg bëgg gi rek. moom la mu la mu la ni ko sëñ Mourtala waxee lépp lépp lépp lépp borom saafara na ko. kon nag loola euh, xéewal la ci ñun. Mhm. Euh, bi nga xamee ni tam direction générale moom dafay jël euh, programme teg. Mhm. programme boobu daara bu nekk am loo ci war a def yaakaar naa ni daara bitim réew kenn ku nekk tam soo jotee sa sa sa sa li nga war a def ci pro ci ziar. kon li ñu koy waxee rek yu saa yoon fil xayraat rek lay doon. kenn ku ne da ngay xëccoo yiw ndax mhm. xëccoo yiw. ci lislaam loolu jongante lay tudd waaye ci lislaam dafa am solo kon yaakaar naa euh, noonu lañ koy doxale mm-hmm. daara ju nekk di am pas-pasub daara ji sama lim lu mu bari ak sama lim lu mu néew néew kenn du ma positif loola nag yaakaar naa ni daara yëpp ci la ñuy dox bu dee daara itali ci lay dox mhm. kon ñu ngi ci turu suñ jëwriñ sëñ góora mhm. di ko sargal di ko nuyu bu baax a baax ak mbooleem soldaar yi mu kàndal yëpp ñu xam ni eh, ñun ñëpp dañu àndandoo rek mhm. too nekk benn kenn ku nekk jàpp ni daal li ñu war a def ci siyaar bi yow su doon jëmmi jëmmi siyaar bi is bu sarax yow yëpp yow sa jën jëmm a kenn ku nekk jëlee posporo lépp day yomb yaakaar naa ni foofu daal noonu lañ ko booleem Espagne ak France ak daara yëpp mhm. noonu lañ ko programmé dëgg la jërëjëf suñu maam Góor Sarr ñu lay santaat bu baax a baax mu teewal kon daara yi Italie incha allah daañu jël soit ci kanam tuuti rek defaat beneen tour waaye laata loolu dama bëggoon ñu dem euh, Guinée Bissau hmm, ak euh, Serigne Amath Gueye su ko defee moom it mu indi ay soññe yu am solo hmm, jëmale ko rek ci li nga xam moo jëm ci ziyaara bi ñu teewlu ko te dellu siwaat barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba ñu ngi siyaare cellule à l'étranger yëpp ci njiital sëñ Ilimane Sarr Amérique ak sëñ Gora Gueye Italie ak Baye Mor Diop Côte d'Ivoire ñu ñëwal tey di waajal bis boo xamante ne nii ñu ngi koy waajalee fii ci Guinée Bissau ci daara Hizbut Tarqiyyah bu nekk Guinée Bissau nga xamante ne membre daara Guinée Bissau yëpp ñu ngi nii toog guddi ak bëccëg suba amuñu wenn waxtu woo xam ne bàyyi nañ ci waajal siyaar bi ndax siyaar bi day loo xam ne jëlee nañ ci suñu jawriñ responsable moral si ñu su mu xamal ñu ne siyaar bi bis la si ñun bis boo xam ne bisu nattukaay àndaar la te yaakaar na ne kenn ku nekk bëgg na su demee suñu nattee àndaar mu buur kon nag ñun fas yéene nañ daara Guinée Bissau suñu benn àndaar buy des boo xam ne du buur fasuñ koy na ndax nee nañu de fu ñu demee ba jàkkaarloo ki nga xam ne mooy ko tedd gi sëñ Mouhamadou Mountakha ku mu ci xool rek sa aju te ëllëg dina fañu te ñun fas yéene dugg ci wax jooju mu wax kon nag loolu ñu ngi koy waajal guddi ak bëccëg suba ak ngoon jànq ak rañaan na ko ku tedd ki daan defee dencaluñ ko dara nag du ci alal du ci xam-xam du ci man-man du ci pas-pas du ci yitte ju kawe joo xamante ne nam ko defee woon diggante boobu rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne ba mu jàkkaarloo moom foofee ci jàkk jam doo defee itikaaf ca daara xuddoos ba ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam indilee loolee di garaat xutbu saman daf ko xamal ne i suma gis jëlli ko kon ñun ñii tam tey jii suñu gis jël na loolee muy yem rek ci liggéeyal sëñ Tuubaa waaye suñu gis mooy fuñ ñu woo bëgg a fas yéene nekk ci rang premier rang ñi ànd ak sëñ Tuubaa di soldaari sëñ Tuubaa yi ñuy wax ne moom la ñu doon waaye ñi bëgg a nekk ca kanam li koy maye nag du yaa koy yóbbu sa bopp waaye liggéey la pas-pas la sëñ Tuubaa moo la fa yóbbu kon nag fas yéene bokk ci ñooñee nga xamante ne ñooy nekk ca kanam ñun waa Daara Guinée Bissau nga xam ne du ñu bàyyi dara lu toll ni tarafatal ay ni lu ñu santaane ci daara is bu tarxee loo xam ne ñu mënul la amul ndax xam nañ ne defuñu ko sëñ Tuubaa moo koy def gannaaw xam nañ ne defuñu ko sëñ Tuubaa moo koy def lépp lu ñu sant daañ ko def ndax xam nañ ne sëñ Tuubaa moo koy def te kon li li koy maye kay mooy yem ci képp ci sëriñ bi bañ ko boolee dara kon nag siyaar bi di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai ñu koy wax le 22 sant samedi lay tombé fas nañu ne ñun waa Guinée Bissau dañu fàkk na mag ña defoon nga xamante ne sunu njaboot sunu alal sunu xam-xam ak sunu moom ak sunuy dëkkandoo ak jullit di ak bépp murit bu nekk fi ci Guinée Bissau woo nañ la ci siyaar bi ñu dem jàkkaarloo ku tedd gi mu faj suñuy aada ñu dellu si nga xamante ne ko jëwriñ waxee responsable moral ñu ngi ñaanal si mu naa daal liñ ci gisee rek mooy Sëriñ Tuubaa lu ko yonent bi saa salaam jaraloon du nekk waa këram yi Sëriñ Tuubaa jaral na leen ko <laughs> bi bi ñu seetaanee waa Brésil Sëriñ Mohamed Ndiour ah, ak euh, ki nga xam ne moom mooy Sëriñ Xaadim Jigal ci Afrique di Sud euh, ak Sëriñ Limaan Saar mi toogoon fii da nga naan euh, gars yi moom fi mu ne nii dañoo tàng jër waaye boo seetaanaatee lii tamit nga xam ne moom la Sëriñ amaat indi léegi moom it dangay gis ne ñoom it ñanga nga fa ñee taxaw rek wala fu ko fu ko raw fa la fa la fa la ñu taxaw euh, signal yi mel ne kon euh, ziara bi ren bi ni ma ko doon waxee bii rek gars yi cofuñu ko euh, dañ koo jël au sérieux te it nag ni ko suñ suñ murtaam doon waxee barki dem maanaam dañuy futteeku ba lépp loo xam ne si lu ñu yor la lu ñu yor lu ñu yoru sax danañu ko lijjanti ngir indi ko def ko ci def ko ci def ko ci ziyaara bi mu ne kon engagement boobu nga xam ne sii moom la ñu engagé wu fas yéene dem ba jeex takk ànd ci ak Serigne Youssou muy jëwriñ ji yaakaar naa engagement bu am am solo la te it foofu la war a taxaw saa su nekk ci ne eh, Pastef gi nga xam ne si moom lay doxee mu doon Pastef goo xam ne si saa suñu ko nattee dañuy gis ne fa mu taxawoon démb kat tey jii dox na ay jéego ak lu mu tuuti tuuti dox na ay jéew dafa war dox lu bare bëri nag waaye du doon koo xam ne si day yaacaaral ah man kat ziara daaw moom wax dëgg yàlla defoon naa ci bii moom xaaral ma sëgg mu jàll wala bii kat xaaral ma noppale ko wala bii kat xaaral ma wàññi sama loxo tuuti ndax nangam ak i nangam ma xam mel ne kon murit xamul jamono ju xat murit xamul ci corona la ñu génne murit xamul euh, jafe-jafe yi dafa metti murit xamul kër gaa ngi may xaar wala dépense may xaar li mu xam mooy sëriñ bi soxla na da cee war a taxaw ba ba mu jeex takk ni nga xam ne noonu la ko saxaaba yi doon defe ak yonent bi saa salaam yaakaar na tudd nañ fi fii keroog euh, Seydina Aboubacar ni mu xam noonu la euh, jëfe woon euh, Seydina Omar noonu Seydina Ousmane noonu ni ñu doon jëfee ci xare yi nga xam ne dañuy dem la nekk seen kër lépp la ñuy buub indi mu mel na ñi nga xam ne ñooy taalibe Serigne Touba it foofu la ñu taxaw rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci daara ji ak fu ñu mën di nekk mooy bu mbir taxawee moom seen dara du ko fekk te foofu la ñu tax te yaakaar naa loolu moom mooy euh, soññeeb euh, soññeeb l'islam waaye ñu desuwaat rek ci mm, euh, thème bi nga xam ne si moom la ñu doon développé sànq signal une mooy njariñ li nga xam ne si kii ziyaare ji ab sëriñam loolee mën na ko koo jural yaakaar naa am na loo ci doon junj léegi da nga duggaat ci buntu boobu rek mu mel ne kon sëriñ bi moom daanaka amu ci lenn lu muy lu muy gañe boo ñëwoon nag nga bañ a ñëw teewul moom la mu yor ma nga mu yor waaye yow mi nga xam ne si yow yaay dem nag di ji sëriñ bi yow yaa bëgg jariñ yow yaa am looy jëli kon am na noo war a demee am na noo war a waaje am na comportement boo war a yóbbu am na it loo war a yóbbu muy ab yóbbal boo xam ne si moom nga yóbbu ba tax bëtub sëriñ bi mën a tege ci yow waaye bu ca tegee it mu doon bëtub ne boo xam ne si dana la ëmbal lu bëree bëree bëree tey te it nekk ci ay yiw ak lu baax lépp sooy ñibbi néew mën a nga yóbbu lépp waaye dana am lu bëree bëri loo xam ne da ko yóbbu te sëriñ bi xolam dana ci sedd jërëjëf euh, man euh, maanaam waar nga ma daal ba ci ni ma <laughs> déet ma koy waar <laughs> man yéenu ma waar. <laughs> man yéenu ma waar te euh, maanaam mm-hmm. ñun ñi nga xam ni euh, dañuy wax ngir jubloo euh, leeral. luy tax mm-hmm. nit ñi amul jëkk mm-hmm. ci liggéey bi mel nii. ñi ñi gën a waar saa su nekk. mooy ñi nga xam ne duñ wax. Ah, waaye seen jëf. moo ñuy waar. seen i jëf moom mooy tax ñu am ak yëg. ndax lu mel ni ki ñu déggoon léegi wax. mu jëriñu daara yi ah. Euh, Guinée Bissau mm-hmm. day mel ne moom ku dégg ni muy waxee mm-hmm. xam ni bu taxawee képp nga ci ziar <laughs> kon loolu <laughs> euh, day mel ni kon uh-huh. euh, loolu mooy li li nekk uh-huh. te li nga wax nii mm-hmm. ba tax ma ni waar naa ci sa waaraate bi uh-huh. mooy li ñuy wan ni taalibe yi jëfoon daaw du tee ñu jëfaat loolu xam nga dañ koy jàngale ni ab taalibe li tax jëfal sëriñ bi dimb warul tee mu jëfal ko tey ñaari mbir doy na ci tegtal benn bi mooy ñu xéewlu woon dimb raxas seen loxo ba set su ko ci ndab xéewlu defoon nañ ko démb de am ci ñoo xam dañuy yegg fa ba dootuñu man dootuñu ci mën a tegaat dara tey jii ñooñu ndax dañu xéewluwaat mu ndab tegee dañu xéewluwaat la ci toppaat mooy lan mooy boo jëfee démb jëf joo xam ne yàlla nga ko jëfal mm-hmm. bokk na ci lii wane ne jëf ja nangu na mm-hmm. mooy da koy fàtte ah. kon uh-huh. bépp jëf boo xam ne ab taalibe bi jëfal na ko sëriñ bi mm-hmm. te muy jëf ju dëggu bu weesee fàtte na ko ndax jëf ju ñu nangu moom loolu bokk na ci mandarga mi ci biir loolu nag tey jëf gi mu jëfan démb loolu ñaari mbir itam dina juddoo benn bi mooy jëf joojee dina ko womat mu gën a jege sëñ bi. waaw ah, ci lu wér wér. boo ko womatee mu gën a jege sëñ bi. Mhm. dina ko may mu gën a xamaat sëriñ bi. Mhm. te su ko mayee mu gën a xamaat sëriñ bi. Mhm. dina tax mu gën a bëggaat sëriñ bi. te bu bëggaatee sëriñ bi. dina gën a liggéeylaat sëriñ bi sëriñ bi dina ko gën a jaralaat. kon moo tax ba lu mu jëfoon démb tey moom faw lu ko faw ko lay jëf. tey ci biir loolu tey ñi fi nekkoon te fekkee yenn ci jëf wees. li tax loolu kenn du ko jàngal mooy koo ci xam ni euh, jëfoon na ba mel ni fàkku na la koy gën a yéem mooy li muy jëfaat ren bu ëppee la mu jëfoon daaw jëfi ren ji moo gën a weef ci moom gën a jàppandi ci moom ah, loolu tey mm-hmm. duñ ko jël misaal ci benn kuréel rek mm-hmm. dangaa war dem doxantu ci koor gi dem ba ci Baay Faal ya laaj leen ñoom ndogo yañ defoon daaw mm-hmm. nam ak ren ndax la ñuy indi woon daaw la ñu indi wala dañ koo ful laaj ba xam nañ jàppante woon daaw ci ñoom ren mm-hmm. la gën a jàppante ci ñoom wala déet kon loolu day loo xam ne moom euh, daanaka nag jàngal ko nit mm-hmm. du yomb mm-hmm. waaye ko ko mos daal <laughs> moom dina <laughs> xam ne <laughs> dafa woyof uh-huh. li gën a yéeme mooy tey uh-huh. ngay gis koo xam ni day nuru ni euh, da lay yow muy jëf fekk yow yaa ko yëram ngeen li nga ko yéeme yéeme mooy lan ni ko ci borom ñàkk yee ci nga ko yërëme waaye sunu borom saa su ne ngay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy riñaan yegg na foo xam ne gis naa malaaka yoo xam ne seen ñaan weesu wut allahumma ati munfiqan xalafan allahumma ati mumsikan talafan yooyu yàlla képp kuy def ci sa yoon wii kuy def ngir sa jëmm lu mu def wutu ko lu wot lu wuutu lam defoon waaye képp kuy téye bañ a jëf ci yow sànqal alalam kon kuy jox yàlla sa borom moom la nga ko joxoon moom dootoo ko tëlee ci biir loolu tey euh, yaa ngi wax ci wàllu njëriñ yi mhm. nga doon wax mhm. mooy ngëneel yi waaye ngëneel yi tey buñ ko xoolee wax dëgg yàlla mënuñu ko lim mhm. ndax wax naa fii léegi benn bunt nii euh, maanaam force la ngir taalibe bi am yu bare bëree bëri yuy jur ak mbaax yu jëflante ak sëriñ bi tey su ne cofeelu sëriñ bi la cofeelu sëriñ bi day yóbbu àjjana wax nañu ko léegi mhm. su fekkee dañuy sukura sukura la mooy dañuy sant sëriñ bi la in shakartum la azidanakum su fekkee dañuy feddali jaayanteem laqad radiyallahu anil mu'minina soo jaayantee suñu borom ngërëm lam la gërëm su fekkente ni ciy wane ak toroxlu ku toroxlu ci kanam suñu borom da lay yëkkati su fekkente ni da ci ziar ziaru tuub ba ci bu dee sàkku ñaan ko tax jóg mhm. wasalli alayhim inna salawatika sakanun alayhim sakanun lahum maanaam ñaan gu yonent saam di ñaanal euh, saaba yi suñ borom xamal la ni saaba yi nii ñaan gi mu leen di ñaanal bokkut gi ngeen a ñaanal seen biir bokkut gi ngeen ñaanal seen bopp kon moom sëñ bi am wàcc-wàcc boromam ba yegg ci sax boo ko soobee du ni may ma danaan defal suñu borom nangul ko ko sëñ Tuubaa yegg na foofu diggam ak boromam mhm. kon tey ñu xam ne li ci nekk ay fursa ngir nga man cee am ay xiiwal mhm. bari na waaye lu bokkut ak fursa yooyu nag nga xam ne tey yaay am julug sàngam jëmi jóg bi siyaare ji sëñ Mame Lamine waa wane na fii léegi ni ña yoroon seeni jaas yi ba taxawal lislaam dañoo ñee sëriñ bu mag bi ci li ko suñu borom defal ba tax ñuy ñëw di ko ziyaare si kon wax na bayit bi inna lazina shahidu fil maaraki ba bayit yi egg kon ñoom ñu ngi siyaare sëriñ bi waaye tey siyaar euh, léeg nga gis kon taalibe bi jóg siyaare ji sëriñ bi mhm. waaye léeg-léeg nga gis tey sëriñ bi jóg nemmee ko si taalibe bi. waaw loolu sunu boroom def na defal na sëriñ Tuubaa tawféex ba yonent bi yegg moom foofu. Mm-hmm. yaqini ilal jannaati maa laysa yoxmadu mm-hmm. rasulun karimun baytana zaara ahmadu yonent bi jóg na baatu ziyaara la utilise mm-hmm. ñëw ziyaara sëriñ bi kon ñëw nemmee ko sëriñ bi. Mm. loolu la ko waral mooy fi sëriñ bi yegg ci moom. moo ko waral. Mhm. waaye nag moom la ci biir ñoom ñoo ko xam. waaye kon xam nañu ni yeneen bi di ko yëg wala nga koy gis. wala nga ko wala nga koy dégg donte yaa koy fekki mhm. su ma may may ko ñëpp. waaye mu may sëñ Tuubaa yeneen bi jóg ñëw ci moom. Mhm. kon moom fa mu yëg sëñ bi la. waaye ci biir loolu kon baatu ziyaare. ni ñu koy defantee rek te lépp jëm yàlla tax. ñu baax ñooñu dañuy ziyaare ziyaarante seen biir ba ci waa kër sëñ Tuubaa yi nga xam ñun ñoo jóg di leen ziyaare. ak ngëneel ci ñoom la fekk baax dañ doon ziarente dégg naa si Moustapha Diaza benn bayit boo xam ne dafa wax ni sëñ Fallou Mbakke moo jógoon ziare ji Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne mooy waajur si Mountakha mi ñuy waaje ziare ji nii Cheikh Mouhamadou Bachir ko ñaari bayit waaye ma dégg si Moustapha Diaza wax wenn bayit ci bayit ko sëñ falu Mbakke tontu muy is bi ziarati talqa kulla makramatin wayantami bi liqaa il faqru walaar nee na ci ziyaare ci ngay dajeeg lépp luy teraanga ci ziyaare nga ko mën a amee waaye itam nee na ziyaare li daje gi ngay dajeeg moom ci ziyaar bi nee moo lay moo lay jëñal di la dàqal ak ñàkk mm-hmm. ak gàcc du ak na laaxira nag lay boole mm-hmm. kon sëñ Fallou moo bind béy woow ci bi mu jógee ziyaare ji sëñ Mouhamed Bachir mm-hmm. kon tey njëriñu ziyaare am lépp luy teraanga nga mën ko amee ci jaar mhm. ak ñàkk daw la li nga xam ne itam mooy gàcce am na alaxira daw la loolu wax dëgg yàlla mhm. doy na ci njariñ ziar mhm. waaye nag sëñ bu mag bi itam bind na bayit bi nga xam ne moom mooy inna alladina ila sarsara qad qasadu ziarati faaraqu daarin aw zaara ñi nga xam ne ñoo jóg di ko ziare ak fu mën a nekk nag nee na tàggoo nañu ak bàkkaar àddina ak alaaxira kon ku tàggoog bàkkaar li ci nekk ay njariñ kenn xamul nu mu toll ndax suñu Abdoulaye Mbacke xamaloon nañu ni suñu borom buy lim ay gaayam ku ñu fóotul see bàkkaar ba mu set wicc ba mu mel ni mosu faa nekk buy lim ay gaayam du la ca boole te sëñ bind na weneen bay ci matam bu fóotee nii ci euh, wane ni fa kullu man xadamani aw zaara fa na ji wax firloo aw zaara képp koo xam ne liggéeyal na ma wala moo ziyaare ma na ko musal waaye itam na ko jéggal ay ñaawteefam kon gis nañu ni njëriñ yi muy jur ci njëriñi àdduna ak alaxira bari na waaye luñ ciy tudd baatu mucc ci ay bàkkaar moom bari na mm-hmm. kon loolu doon ay ngëneel yoo xam ni euh, kenn xamul fu mu mën a yem te buñ yemoon ci li muy firndeel ak cofeel diggante taalibe ak sëriñ bi mm-hmm. ci silku jawaahir wala boo ci baadu ajwibati wa wasaaya Cheikh Xadim am na fa muy wanee li tax sopp nit yàlla aarif am solo ndax wax na ni aarifina billaahi muy sëriñ yi mat sëriñ yajalullaahu fihim maa yusayiru sayiaati muhibbihim xasanaatin loolu moom di loo xam ne moom bokk na ci li gën a yéeme mooy nit yàlla dañoo yegg foo xam ni ku leen sopp cofeel gu dëggu mm-hmm. nee say ñaawteef suñu borom da koy soppi aw yiw kon wax dëgg li ci nekk ci ay ngëneel mm-hmm. moom mënatu koo lim te itam euh, moo tax ba wuruñ ci doyal ndax li ñuy indi ci àdduna bi moom mooy mm-hmm. fexe am ak defaru fexe am ci njubug suñu borom gii te loolu di loo xam ne euh, sëñ bi saa boo demee fi moom rek yaa ngi dem ci foo xam ni ña ngi fay fekk seen diggante seen borom yegg na foo xam ni moo tax ñu wax ni euh, laa yas ulaaika al qawm laa yasqaa jalisuhumu is yuksibuuna al muridiina saadaati kon boo ko moom jataay donc jataay boo xam ni dañ lay faggul ak texe kon mooy jataay boo xam ne du doon mukk jataayu texe di bëgg naa laaj foofu rek euh, si signalin maanaam ci ziyaara par exemple boo jëloon tey ziyaara daayira Hizbut Tarqiyyah bi nii nga xam ne am na ñu nekk France ñii ngi Italie ñii ngi Afrique du Sud ngi feneen ak feneen seen loxo dana ñëw gaa waaye seen jëmm du ñëw ndax ñi nga xam ne ñoo teew ak ñi nga xam ne si teewuñu waaye bëggoon nañoo teew ndax ñooy yam même euh, même même même dayoo ci kanamu sëriñ bi wala maanaam ndax du ci am ñenn ñoo xam ne danañ ko yóbbul ñi ci des xam nga li ma bëgg a Euh, waaw am na euh, nu ma jàppe li nga bëgg a wax léegi mm. euh, loolu day ni war naa mën a yomba leeral mm. waaw mm-hmm. ndax li tax ma war a mën a yomba leeral mm. mooy dama waroon laaj ni ma ki nga xam ni def na effort bu néew mm-hmm. am million joxe ko ak ki nga xam ni fàkk na ba jeexal tàkk am junni mm-hmm. joxe ko ñam ñaar ndax dee yam ab yool hmm. wala kuy ëppale ab yool hmm. duma la ne kenn ci ñoom ñaar ñi mooy ëppale ab yool waaye da nga ciy xamee ne kon hmm. eh, boo demoon ca julli tabaski bisim borom di leeree ndi xar nee na la lan yanaala laaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaloo taqwa minkum lu xar mi réy réy réy loolu dara ji bari bari bari suñu borom soxla waaye pas-pas bi ñu koy defee moom mooy li ci am solo moo tax ngay dégg sax ci bu ñëwul ci wàllu ziar murit bi jige ak murit bu sori mhm. ngay dégg ñuy wax jige bu sori ak sori bu jige kon loolu lépp ñu xam ne kon pas-pas yi lay doon mhm. képp ku nekk bitim réew daal man mhm. euh, du ma waxee ci yow mukk nuy tax nga jàpp ne toog foofu ak ñëw fii ñooyam waaye dinaa waxee nuy tax loolu am am solo nga xam ni ku amul gàllankoor ku nekk li nga xam ne ñëw moo gën ñàkk ñëw hmm. waaw ok ok <laughs> mu ngoog eh, ku amul gàllankoor bu nekk mu ngoog eh, jërëjëf xam naa dañuy seetaan seetaanaat benn eh, élément su fekkente ne mën naa mën naa mën naa jàppandi ah muy Baye Mbacke Ndiaye mi nga xam ne moom mooy jëwriñu daaray France ñu seetaan ko suñu dellusiwaatee ma jox suñu Lamine moom it mu daal di duggee foofu nga xam ne foofu nga daaneele suñu signal yi waa régie bu fekkee élément bi yemb na ñu seetaan ko ti dellusi bisimilah barke borom Tuubaa bisimilah barke borom Touba bisimilah barke borom Touba ñu ngi ñëw di nuyu mbokk mu saalax yi mbokkal liggéey bi waa daara Hizbut Tarqiyyah ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew bàyyiwuñ kenn ñu ngi fab nuyoo bi nag di ko teg ci loxol sëñ Ilimaan mu tegal na ko ci loxol sëñ Yuusu Jóob jawriñ bu loolu jàllee nag noo ngi sant yàlla lii moom ak cant rek la tey ak cant rek la ndax liggéey bi nga xëy moom lañu seq fii ci daaray France ñi fi nekk keroog biñ leen joxee seen liñ ci war a am ba ñu ko séddalee ba noppi kenn ku nekk danga daal di jël ak la nga bi ñu defee seen suñ bi biñ mujj def booba noo ngi woon ci vingt deux pour cent waaye xale yi dañoo daal taxaw képp juróom benni fan ci leen liggéey sunu liggéey te boo leen ciy wax France moom ku ne xam na ni muy doxee mboolem ñun seqal liggéey bi it ñu ci bari am na lu ñu lu ñu koppi ci noonu ci dox doxee kon loolu noo koy sant yàlla di ko sant yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha tey moo moom moo fi Serigne Touba ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne nag waajtaayu moom ni ñu ni ko bëgg rek ni leen koy defe defee teddu fi des. ñun ñëpp danañ ñëw bu soobee yàlla te duñ fi bàyyi dara taxawaay bi moom taxawaay bu rafet la fii nag xale yi ndaw fi ne yokkee kenn amu ci 40 ans kenn amagu ci 40 waaye ñoom dañoo buur wutali sëñ Tuubaa bu dee xam-xam doyal nañ ko sëkk bu dee mën-mën doyal nañ ko sëkk seen alal it sequñ boole ko sëñ Tuubaa kenn te li ma leen wax xam ngeen ko daara France moom ku ne xam na ne. amul benn objectif boo xaye bii ñu ngi ko koy topp lu mu mën a doon rek dañ koy dóor mu daanu lu mu mën a doon dañ koy dóor mu daanu kon sëñ yuusu na nga xam ne na nga rafet njor te xaye fii ay soldaar yi sëñ bàmbaa fi nekk yoo xaye duñ dëpp duñ daay te duñ dellu gannaaw bàyyiwuñ kenn daal ñëpp daal ay jàmbaar lañ ay fàkk tëdd lañ sëñ Tuubaa rek lan yaakaar nag moom rek lan gëm moom lan góor moom lan sopp moom lan dëggeel kon lépp jox nañ ko ko tey ak ëllëg sëñ yuusu na sa xel dal seere si nga du seere sépp nag dég nañu waaye fas nañu yéene duñ la war duñ dellu gannaaw barke borom mu nga yaakaar naa loolu dal na xel lool ci dégg ngeen li Baye Mbacke Ndiaye wax nekk ci daara yi France euh, kon ay gone rek fa nekk yoo xam ne si Serigne Touba rek leen ñor noonu nga ko fekkee France noonu nga koy fekkee ci yeneen daara yi nga xam ne ci moo xam Europe moo xam fii ci Afrique wala si biir Sénégal fu ci nekk rek da ngay gis ne euh, takku la ñuy def ba dëgër te it nag bu ndigal li xasee ba jib moom jeex na euh, kenn amatul soxla fenn sa yitte yëpp mooy fexe ba li nga xam ne moom lañ la tobbil moom nga fexe ko matal te boo ko matalee doo yéem boo boo ko matalee ba noppi da ngay tàmbaliwaat à zéro waaw euh, si si Maodo Lamine ma nekkoon suñ signal yi mi ngi woon ci ngëneeli euh, ziar maanaam ngëneel li nga xam ne si moom moo nekk ci ziar ma ne kon euh, njariñ la ci jullit bi wala ci murit bi toujours muy dem di nemmeeku ji ki nga xam ne si moom mooy kilifaam ki mu doxale digganteem ak boromam euh, di ko ziyaare ji euh, di ko seeti ndax ni ma ko waxee woon léegi rek la cay tooy moom toujours du jóge ci sëriñ du du ci sëriñ bi lay jariñ waaye yow mi nga xam ne si yow yaa jóg demoon yow lay yow lay yow lay jariñ mel na kon wares na koy baril lool waaye suñ koy bari ñuy yeesal pas-pas yi ak yéene yi euh, ba fexe ba nga xam ne si la ñu fay wuti bu nu demee daanu ko am ndax nanu ko war a defe moom mooy defe ko ci yar ak ak tegge dëgg la sëñ Modou ñuy euh, sant bu baax. ci pas-pasu waa Daara France Baye Mbacke moom yaakaar naa ni. Uh-huh. yëngal na yeneen daara yëpp. yi nga xamante ne fi mu te nii mu ko waxee it. Uh-huh. noonu lay doxee. Uh-huh. xam nga si yàlla dafa indi ci ziar. loo xam ne li ci jiitu. mooy ndigalu sëñ Touba. boo demee ci naaju xadaayal xaaj. dalay wax taxawaayu murit bi. wa zur xiyaar al ulama wa saalihin wa axdimhum turan li wajhum lillaahi jalla kullahin nee na del siyaare foo toll boroom xam-xam yi mm. tànneefu boroom xam-xam yi mm. te di leen liggéeyal nee bul dañ tamit di leen jox àddiya sa kem kàttan mm. bul dañ di barkeelu ci ñoom ngir ci ngay jëlee ak njub kon loolu ndigal sëñ Tuubaa boo mu ci xaral hajj di ko ci fekk mm-hmm. waaye ziyaar dañu dañu dañ ci mën a seetlu ne benn wenn saan la woo xam ne mën nga cee jamono fukki picc ndax murit bi bu ñëwee di jébbalu ci sëñ Tuubaa daf ko naan sama bakkan ak sama alal laa la jox waaye nag ziar doon na fursa di occasion mhm. bu koy may loolee moo xam mu dëggal ko mhm. sëñ Tuubaa nee nañ dafa am ku mu mës ñëw ci moom ne ko mhm. jébbal naa la sama bopp àddina alaaxira sëñ bee sëñ bi sëñ sëñ bi ne ko sëñ bi ne ko dégg nañ ko. Mhm. jébbalu ay wax la rek bu boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee ñu jàpp. ko waxee dégg nañ ko mhm. boo ko jëfee ñu jàpp. Mhm. tax nga jëf ko nag mooy danga ko wax koo koo ne jox naa la sama lépp. kon sa alal taxul ñuy wax. sa bakkani taxul ñuy wax. kon ziar maanaam occasion gi noonu benn boo xam ne dana dimbali. la nga waxoon ak sëñ bi. ne ko sama bakkan ak sama alal laa la jox mu fàttali la ko ngir nga jël sa alal mu teewal kon loolu benn la ci njëriñ te saxaaba yi sëñ Abdoulaye dafa ne woon ñoom kat seenu jaayante dafa jëmoon seen giru dund dafa jëmoon kon dañ leen laajoon bakkan yi ñu sotti ko ginnaaw su ko santaane ñun suñu jaayante dafa jëm suñu giru dund kon nag war nañoo xam ne lenn lu ñu moom amul ngir nit lu mu jaay te yaakaar jot ci njëg la mhm. moomatu ko moomuñu suñu bakkan moomuñu suñu alal suñu lépp sëñ Tuubaa ko moom kon loolu ziyaar tam occasion la buy may nit ki mu xam ne léppam sëñ Tuubaa ko moom mu mhm. jëm ko euh, soo gisee nag tey euh, li sëñ Aliou Guèye doon wax sànq mhm. euh, dinaa ci dugg rek ndax tey sëñ Tuubaa daf ñu cee jàngal lu am solo innamal ahmaalu binniyaati tey jii boo gisee tey jii France wala Italie sëñ Mame Gour Sarr Italie la jóge teew na sëñ Ilimane saar jóge na Amérique teew am na ñeneen ñu ñu ñu ñu teew diggante tey ak suba dina am ñeneen ñu jóge feneen ñëw mhm. waaye am na ñoo xam ne fi mu ne nii fañu ne euh, bu bisub ziar bi ñëwee moom mhm. lenn rekk leen di desere mooy jaar ci buum yi ak si Touba <laughs> waaye seen xol mhm. seen yitte ñooñu nag mën nañoo am rafet njort ne la Seydina Ousmane amoon Badar mën na leen cee daal wa fiihumu xulafaa siddiqu ma xumarin usmaanu wa aliyun buxiyatul xulama is xal bu usmaanu fii kal xuzaati mahan ama salaasal fa isar man bahima uhuh. kon nee ñee moom uhuh. kenn nattable ne ñu ngi dem ci xare bi di ñëw uhuh. waaye kële moom xolam ma nga woon ci xare ba lu jafe nekk Madinatul Munawwar di dox ak nit ñi di la seen sab xol teew ci Badar yor jaasi di xeex ah kon loolu mel na ni ñi am ngànt yaakaar nañ suñu borom ci barkeb sëñ Tuubaa mm-hmm. mën na leen dugal ci tawféex jooyu mm-hmm. mm-hmm. ziyaar itam dégg nga sànq sëñ amaat bi muy tudd dafa wax natt àndaar uh-huh. muy lu lu yéeme loo xam ne tey amul jënn daara joo xam ne kàddu yi Cheikh Mamadou Mountakha waxoon rek ngay gànnaayoo nee na nee na nee na ngor ba ngor jeex uh-huh. nee mooy bañ ñaaw jom ba jom jeex mooy bañ des ginnaaw tey boo gisee Guinée Bissau mhm. seen lim bariwul mhm. ni li limu eh, beneen daara waaye seen jom teg nañ ko ba fukki daara yi ñu wax ne mhm. liñ leen féetale woon matériel nañ ko ci kanam lañ ne eh, eh. kon nga xam ne kon <laughs> jom ba jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw loolu nag ziyaar itam bokk na ci li nga xamante ne day togg murit bi ndax jom Sëñ Abdu Lahat dafa ne woon ngànnaay la loo xam ne ak njullit da koy soxlawoo da koy wéttalikoo kon Euh, euh, dafa baax ci liggéeyal sëñ Touba. mooy am loo teg sa bët teg ci sa bakkan mu jaral la sa lépp. Ah. kon bisum natt àndaar boobu muy wax. ci biir liggéey bi dangay gis ne ziar. Mm-hmm. dafay dàggi pas-pas. Mm-hmm. di yokk dogu. di yokk itam wàkkiru mm-hmm. ndax tey sëñ Mourtala wax na ko bi si ñuusu tuddee ab lim ne lim bi la yóbbu. gars yi dañ ne ah kon de nag fi mu ne nii moom. li gars yi daan caaxaan faaxee nag. ginnaaw moom tudd nañu ko moom. Ah. maanaam euh, bu doon xale ma moom. Ah. moom moom moom moom waw na moom. Ah. lenn rek mooy jëmmal ko. Mm. loolu nag da ngay xam ne du yow. sëñ Tuubaa rek la ndax itte ji ngay def ci sàkku addi jëm ci ziar. ngir jébbal ko sëñ Tuubaa. Mm-hmm. téeméeri itteem. Mm-hmm. mbaa fukkam di nga ko daj ci soxla su ko gën a ndaw. te xaaj ba du faju <laughs> moo tax lii sëñ Aliou ngay di wax maanaam yomb naa jàng yomb naa jàngal membre is bu tarixee waaye di nga daj téeméeram mhm. ci yitte ji ko gën a ñàkk solo mhm. xaaju yitte ji di faju nga jël fukk ci lu ëpp loolu mhm. doo ci daj loolu waaye pas-pas loolu nag li koy def mooy wakkirlu ak xam ne sëñ bee koy def sëñ Tuubaa dafa am lu mu taggoon waa Badar nee na ba ñu jógee jëm ci xare bi la tax ñu jël ndam li mooy wakkirlu suñu borom saaru wa saaru ila badrin mhm. kon dañuy daw jëm ci waaye nee na nag la tax ñu jël ndam li mhm. wal kulluhum waasixun billaahi mun jasima kon xam gu ñu xam ne ah jëwriñ dana tudd na lim boo xam ne xam nañ ne nag moom suñu borom rek ci barkeb Sëñ Tuubaa moo ko mën a sottal su ko defee lu ci des mhm. mooy sóobu boo sóoboo dajeeg dajeeg dajeeg maanaam ndimbalu Sëñ Tuubaa fi may daane rek mooy gis naa ci ziar waaw tawfiix yoo xam ne day mel ni lépp li murit di wut ngir ñu tuddee ko murit daje na ci ziar. Ah, sëñ Abdoulaye dafa ni sëñ Touba moo sos murit. Mhm. bi mu ko ndax nee koo xam ne ba nga ko jàppagul doo tudd murit. Mhm. boo ko bàyyi doo tudd murit bu ñu dee wax murit moo tax kon nee na murit amul sëñ Touba rek am. Mhm. nee mu wëlbatiku jël Touba tuddee ko Touba ji si àjjana. daal di wëlbatiku nag ne Touba li habdin muridin saadixin lahumu daal di jël ñett sësale ci. yoo xam ne ci la ab murit di dëggalee bi xidmatin la wax mm. aw bi xubbin la wax aw hëddiyaati la wax te nee na yooyu benn boo ngeen ci defoon mm. mu mën leen a may li ngeen bëgg mm. ngeen boole ñett yëpp di ko def kon nag seenu saadix ah, mën naa ko seere fu ne kon nag bi xidmatin ku ne xam na ni ziar ab liggéey ko indi aw bi xubbin cofeel mooy tax nit dagg paas ca Amérique wala ci Australie du xam lu bii bii jar du xam liñ koy teg ci aéroport bi moom gis moom du mu Mountakha jàkkaarloog moom rek moo koy jaral cofeel mooy tax nit ca Ziguinchor wala ca ca Tamba waxtu wii mu tàmbalee dajale ay bagaasam bu fekkee waa Thiès dañuy xëy fajaru moom xam ne ni ajjuma mbaa alxamis la fay déparé ngir du bëgg dara raw ko ci kon loolu mi ngi ci biir ziar addiya ji nag moom mhm. taxul ñuy wax ndax maanaam mooy teewal di firndeel cofeel gi kon mhm. gis nga kon ziar yaakaar naa mhm. euh, bu ñu xoolee li ci nekk lépp euh, ci fàttali suñu digganteeg sëñ Tuubaa anfusuhum amwaaluhum waaye cofeel gi ñu ko soppi itam liggéey bi ñu koy liggéeyal addiyee ji ñu koy jox waaye jomm ji nga xam ne maanaam moom la ñuy def di ñu di di ñu togg mhm. ngir ndax ndax euh, lii euh, ziar bi sëñ Amath di wax ak sëñ Baye Mbacke wax ko mhm. soññe bi koy génnee moom mhm. ci jataay yi ñu koy defee faw dañu fay tudd ahlu badar dañ fay tudd badar <laughs> dañ fay tudd saxaaba yi dañ fay tudd barxul ximaat dañ fay tudd raay bi dañ fay tudd jumaa ji hmm. dañ fay tudd carrière bi dañ fay tudd sëñ Mourou Moustapha hmm. tudd fa mag ñi baax ñi àndoon ak sëñ Tuubaa loolu nag hmm. gis gis nga gisee ni ziar kon day yeesal ndono yi sëñ Mourtala wax na ko ci tàmbali waxam di yeesal patrimoine yooyu fi mu ne tey am na gone yoo xamante ni fi mu ne nii. Euh, maanaam euh, booleen leen boo leen boo leen boo leen boo leen boo leen laajoon badar nu muy def. bu ñu gëmmee tari la ko. wallaay ci wér <laughs> <laughs> te saa bu ñu ci soññee bu subaa nga gis ñoo xamante ni. dañuy laxasaayu. ngir seen xel dem ci saaba yi kon loolu yaakaar na loolu yëpp kon. ay maanaam patrimoine la ndono la yeesal la. Uh-huh. loo xamante ni dafa bokk ci yi nga xamante ni maanaam euh, murid gi da ciy dund. Uh-huh. taalibe bi itam di ci yëg bopp. dëgg la jërëjëf suñu maam Lamine ñu ngi lay santaat bu baax a baax xam naa boobu léegi nag yéen a ngi naan bi sëñ Yuusu tuddee ab lim waaye lim bi moom te nangoo ko ko wax wala wala wala sëñ Mourtala Seye dana ma ko déy après. parce que suñu mbokki yi toog moo ah, mu nar a demee lim bi moom nu mu man nu mu nar a toll dégg euh, ndax euh, dañ dañ koy yàkkamtee xam mu ngoog waaw ndax euh, moom sëñ Youssou toog na moom yàgg di wax ne ah. man sax xam ma lu ma puus moom tudd ab lim rek <laughs> waaye ndax ah. ba mu tuddee lim ba bañ dawalee rëpptal daw dawaat rek ñi déclaré ne bilan zéro mel na ne tàmbale rek. waaw mel ne dafa rëcc lu mu tudd ndax jàpp eh, ne mën naa tudd lu gën a kawe loolu. nga xam ne lim boobu daa day mat nga xam ne nga xam ne kon. dañuy xam ne sëñ Touba. pas-pasu liggéeyal ko. ko amee. soo jógee ko day daw gàttandul. ci ci lu loolu da ko caa gis. ba ko ci gisee rek. rëcc lu mu tudd. jàpp na ne mën tudd lu gën a kawe loolu. yittee liggéeyal sëñ Touba ah. sëñ Modou mooy loolu. Ah, ah, li tey liggéey sëñ Tuubaa mooy loolu mooy soo jógee di ko wutali mm-hmm. Mm-hmm. na nga na na na fu kawe ah. na nga visé fu sori mm-hmm. te xam ne war ngaa gëm ne yow defoo waaye borom mbir mi mooy def yàlla su borom su la nee soo ma sàkkalee aw lay ma dimbale la du càngan yàlla su borom dafa tëral dara ba tax mu bëgg ku ko ku ko dimbale soo ma dimbale ma dimbale la ah, déedéet sàkkal ko aw lay layu mooy lan sa yitte sa pas-pas na mat sëkk. su matee sëkk. da nga mhm. yëg ne ndimbali faggoo na ko ba noppi. Ah waaw ci lu wér ci lu wér wér jërëjëf suñu classé yi ñu lay euh, santaat bu baax a baax di sant si Mamadou Lamine Diouf xam naa mën nañoo seetaan rek benn euh, extrait boo xam ne si Hizbut moo ko amaloon euh, ci atum 1997 ci jëm ju tedd ji di Cheikh Salihu mbakki wax kay mu ngoog su ko defee ñu teewlu ko te dellusiwaat. بسم الله يا ولم ترى لأن الترى ولا تجد البواب asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dibéer fukki fan ci weeru tamxarit ahama xaytasin atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk juróom-ñett ci gàddaay gi di yow Mansoura dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai 1997 daara Hizbu Tarxiya ak mboolem bànqaas yi mu am dikk na siyaare ci Serigne Saliou Mbacké siyaare bi nag ràññeeku na lool ngir jënn daara desul fépp ci réew mi ñëpp dikk nañu teewaay bi it fullawu na lool tàmbalee ko ci daara ju mag ji nekk tuuba ak daaray Ndakaaru Tëngéej Kees waawan Jiwaalo Kebemer Louga Ndar Njaareem Kaolack Fatick Tambacounda Kolda ak Ziguinchor daara yi nekk bitim réew itam di Italie France Amérique Côte d'Ivoire ak feneen foofu membre nekk ci biir réew mu mën a doon seen jëf ak seen taxawaay dara desu diñ di sa yaakaar àdduna ak alaaxira war naa jaral ku ne xuus ci ay dex wala jéggi ay xuus kon siyaare kii nga xam ni tey moo taxu ci buntu kër Serigne Touba muy Serigne yu Mbacké di seere ci bépp taalibe bu yaakaar sëriñ Touba te muy dëgg jenn farata jiituwu ko ci nun ngir bu nu fàttalikoo ne mag ñi fi daan jóge di fekk sëriñ bi ci xomaak ca gànnaar walla céyeen wala njaarim dañ daan doxal seeni tànk coono yu nañu tegoo waaye wóor nañu ne lu leen sëriñ Tuubaa mës a dël ci yoolub siyaar defal nañu ko ngir wax ji mu wax ne wa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi wax fi loo aw zaara nee na képp ku ko liggéeyal wala nga jëf siyaari si ko suñu borom defal na la ak njëgal ak mucc bi ñu agsee mbooloon mépp dañoo wër jumaa ji door a wutali kër sëriñ Saliou Mbacke kenn desul du mag du ndaw du góor du jigéen ñëpp dikk nañu te nii mbooloo mi toll ak limu woto yi ni mu toll doy na firnde ci ne kenn desul bar bu màgg bii di Matlabul Fawzeyni lanu sëriñ Saliou Mbacke defal tawfeex dikk fi ñu amale fi siyaare bi bi sëriñ bi dikkee fekk na mbooloo mépp teew kenn desul kuréelu xasida yi yu mag yi ak gone yi àndandoo di yëkkati xasida yi ci wet gu bi sëriñ bi agsee ci la ànd jëwriñu daara ji nemmiku mboolem bagage lu ci ne mu xool ko bég ci lool lii nag tawféex gënu ko wëree ci nun te wax ji sëriñ waa wax ci xas dëgg Matlabul Fawzayni gi mu bindee ci barab bii ñu siyaaree tey firndeel na ko muy wajlub lahal xayr minal jihaati as sitti wak fiyahanil aafaati dafa wax ni yow suñu boroom ñan naa la nga xëcc wépp yiw ak lépp lu baax ci juróom benn gox yépp jëme ko ci sama dëkk bii di Touba te ñaan naa la nga fegal dëkk bi gàkkub àddina ak àllaaxira yëpp wax jii day nattable wuñ ne lépp luy àddiyee ju dikk ci siyaare bi ci barke wax ji rek la jàppande ak fu fi mën di bàyyi ko bu ñu amee kon tawféex mu waaxu ba tàbbi ci sëriñ Serigne yu Mbacké war nañ cee sant Serigne Touba te xam ne danañu ci defal lu kawe suñu njort faw li jotin min watan sëriñ bi nemmee ko bagaas yi ba noppi ñu jiite liggéey bi ci mboolem daara Hizbut ci biir réew mi ku ci nekk ñoom ñëpp jëwruñu daara ji àggale na leen ba ñu ñëw sëriñ bi ñook ñiy taxaw mbooleem daara yépp te féete ci wàllu direction générale bi nekk Touba jataay bi ñu am tey lépp ak yokk la ak ku yëkkatiku ci ñëpp ngir sëriñ tubaa ko wax fa nazaratul hubbi mina cheikhi ila muridihi hiyal mazaya wal hula kon nattable wuñ ne mbégte mi sëriñ Saliou Mbacke wone te seereel ko mbooloo mi wóor nañu ne na nañu ci sëriñ tubaa lool suñuy kàttan lot na ci jëf ko suñu sàkk ko suñu giir dund mënuñu koo may sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax mu ni ci bis bu màgg bii ak barab bu màgg bii di mat la Matlaboul Fawzayni waaw nee na sant na yàlla lool ci ci ci siyaare gi ñu def ci bis bi nga xam ne dañ ko day sunna ci digle ko ko ci siyaare kon kon ngeen xam ni jóg ngeen ngir siyaare bi te dikk ngeen ngir ndigal li nee na barab bii ngeen nekk tey nag fenn gënu koo màgg ci Touba ndax Serigne Touba ko màggal ne juróom-benni juróom-benni at yi nga xam ne am na ko fi ne da caa jagleeloon juróom-benni weer yoo xam ne barab bii ñu toog tey la ko jagleeloon ci biir loolu la defee mat la bu faw see ni muy xasida gi nee na kon nangeen xam ni mu demee ci Touba moo tax mu jagleel leen ko maag yéen ah nee na itam liggéey bi fi nekk lépp it yéen ko liggéey ak yeneen yi ne feneen nee na mi ngi leen di bëgge bu baax te di leen san nee na sëñ Touba mi leen tax di def moom la ko seereel ne ne di leen mu ngi leen mu ngi nuy sàkkul ci moom itam li mu digge ci yoon wi jëf ci jëriñu ci lépp fekk nu ci nee na yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk nee na yére yëpp gis nañ ko bu baax a baax nee na yére yëpp gis nañ ko bu baax a baax seet na yëpp yérey daara la yérey kër gi la di yérey daara ji nee mi ngi ci sant bu baax a baax ñu nee na mi ngi ñaan ñu day ci ngërëmal sëñ Touba itam ak ndimbalam ak tawféexam ba ba fu ñu bëgg àgg ci jëfi yoon wi ak ak ak ak jariñu ci ñu àgg fa amin mbàkk na ñëpp tàllal seen loxo nag mu nga xam naa extrait jour extrait ziar yi rek daanaka jaroon na def émission bi <laughs> waaw man daal xaw ma nag ni muy yëngale ñeneen ñi ni muy yëngale moom mi ngi koy yëngale ñeneen ñi wala déet waaw sëñ Lamine da nga ciy ñëw tuuti rek ci ci commentaire. loolu waaw jërëjëf sëñ Modou muy ziar bu bu bu kéemaane boo xam ne. ñi ngi ko defoon euh, yow ma ah. ci lañ ko defoon. Ah. ndax fokki fan. moo ci bis bu màgg bi waaw ak ci ah, bërëb bu màgg bi waaw. mu ne kon di bisub ziar. kon ñëw ngeen ngir ziar bi jóg ngeen ngir ndigal. ba noppi itam. Mm-hmm. ne ñu fii ma leen teeroo. Mm-hmm. maanaam ni mu ni mu demee ci man. moo tax ma jagle leen ko muy Matlabul Fawzayni ndax sëñ Tuubaa fa la bindee xasida ak Matlabul Fawzayni te itam nee na. Mm-hmm. fenn gënu koo màgg ci Touba ndax sëñ Touba moo ko màggal. ba noppi itam ñu am ci tawféex ndax nee na li fi nekk lépp. yéen ko fi def. ndax mbaar mii ñuy ziyaare. yàlla dogal na. Euh, bokk na ci mbaar yi nga xam ne. yaakaar naa ni xëy na su amee mbaar mu muy tollool ci ñu defal sëñ bi. Euh, euh, mbaaru ngaa bu xam naa lay war a doon. lay war a tollool ba dimension bu bu bu <laughs> sëñ bi liggéey la woon ko fii sëñaat ne nañ ko nañ ko defal fii. am na fi sëñ Tuubaa eh? bindee bindee eh. xasar mat la bu fawse yi kees googu bokk na ci liggéey ñu sëñ bi njëkk jox ngir ñu liggéey ko fii ci biir kër gi muy taw tawfeex ju am solo muy eh. barab bi nga xam ne sëñ Tuubaa fa la bindee xasar mat la bu fawse yi waxtaan wi nag li ci gën a yéeme mooy daf ñu cee nettali mm-hmm. xisa bu yéeme boo xam ne ci làmmiñam la ko nettalee moom sëñ Saliou mm-hmm. nee na fii ma toog mm-hmm. diggante mbaar mii ak tabax bii nee na gaynde dàq dàq na fi njaay àll nee na njaay àll gi daw ba jël ñaari tànkam teg ko ci mbaggi sëñ tubaa eh. gaynde gi seen ko agsiwul taxaw eh. ba ab diir hmm. gaynde gi dem mbaam àll bi dem dem ci ay yitteem eh, waaye nee de fi sëñ li sëñ bi doon bind hmm. la ko jiitu hmm. ak la ci topp ak tànk yi mbaaw àll gi gàcc ay tànkam ak coowal gaynde gi nee na boo ko xooloon ci mbind mi mënoo leen xàmmee <laughs> nee raf amu ci gag amu ci Eh. waaw ko mel noonu nag sëñ bi ah, ah boo jógee di ko ziyaare lum la ci dël mm-hmm. war nga ko war war war nga ko mën a gëm lool di nga ci ne ziyaar mm-hmm. ah li mu mën a fagul nit bari na li mu ko mën a fegal ci ay ay torof torof li mu ko mën a dàqal ci ay ay gàllankoor mm-hmm. li mu mën a dox digganteem ak ay ndok loolu lépp ziyaar attan na ko ndax loo ci jublu rek suñu borom defal la ko mu defal la ko mu ngoog jërëjëf jërëjëf sëñ Babou baax baax a eh, xam naa mën nañoo ñëw ci sëñ Moutalla Si parce que waxtaan ngi mi ngi dem fi mu ne nii eh, sëñ a gàtt rek laata ñuy dugal kon waa Daara Kolda parce que ñoom tamit eh, def nañ intervention bu am solo laata aussi ci sëñ Góora sëñ mu daal di mu daal di dafa am question bu ma la bu ma la bu ma la laajoon ci bi nga njëkkee jël kàddu te dafa mel ne xëy na da nga ko fàtte yooyu muy maanaam jamono ji ñu toll nii nii nii fan la direction général yam ci wàccaayu ziar waaw ci wàccaayu ziar bi direction général ñaari fànn la mooy fànnoon dajale addiya ji mm-hmm. mi ngi dem bu baax mm-hmm. waaye mm-hmm. nee na nañ bilan zéro nañ ñëwaat fekk egguñu ci bis bi rek kenn ku nekk loo am indil muy benn fànn ñaareel fànn bi mooy terrain bi barab bañ koy defee uh-huh, uh-huh. barab bañ ko defee nag ñu ngi koy wàcc bu baax ndax grande structure mbaa dañu war a installer ngir aménager ko dagg ko ba mu mel na war a liggéey boobu tàmbali na xam na benn mbaar moo xam ne cinquante mètres sur trente la nga xam ne daanaka mille mètres carrés la yu ñu installé nañ fa ay pagode lu ëpp fukki pagode installé nañ fa tamit yeneen mbaar yoo xam ne yu yaatu lay doon yoo xam ne nañ ko lijjantee soxna yi mu nga kon gis ngeen ko mooy loolu euh, mi nga avancé liggéey bi sax mu nga moo gën a avancé lii mhm. ndax jii jaar na fa kon nañ yëg ne ñu ngi koy waajal bu baax fi góor ñu war a nekk mhm. fi soxna yi war a nekk ndax Sëñ Tuubaa noonu la ko mës a bëggee fi gone yi nekk tamit ñu waajal ko lépp waajal ko tamit ay écran yu mag mhm. yoo xam ne kenn ku nekk foo mën a nekk mhm. yow da nga gis kon jarul kenn di xat-xatloo kenn du buuxante jàpp nga ne mbooloo mi fa nar a ñëw xaj nañ fa mbooloo mi bari na waaye mbooloo mi bari bari waajal na installation yoo xam ne kenn ku nekk foo nekk da ko mën a gis ñoo mën a gis lañuy dem. Mm-hmm. muy lu am solo lool. Mm-hmm. diffusion bi tamit en direct lay doon. Mm-hmm. bu soobee yàlla. ci Al Mouridiyyah si yeneen télé yi ci réseaux sociaux yi yëpp. bu soobee yàlla loolu dana am. ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. lii ñu sàkku rek ci mbooloo mi. mooy ñu xam ne yar. ak i teggin bu ñu xamee euh, Hizbut Tarqiyyah ni ñu ko fa wone kenn ku nekk da góor góorlu ba fu ne taxawloo fu ne loo nga yem foofu. kenn ku ne na ngi def yitte. ba li nga xam ne moo gën di faral di am ci jamono yi kenn ku nekk génne portable bëgg photo bëgg photo mhm. ñu bàyyi ko déedéet mhm. jëru ko mhm. kenn ku nekk na nga ànd ak yar ak teggin te xam ne su dee photo sëñ bi rek nga bëgg su événement bi paree foo xool ci internet da ngay gis photo te photo bu gën a rafet moroomam nga ne bii la kon bu kenn yëkkati portable ni da ngay photo déedéet kenn ku nekk tamit dana faral di gis fu sëñ bi jàllee ñëpp di yuuxu nangam. Mhm. déedéet nañu ànd ak dal mhm. su sëñ bi di wax. ñu ànd ak dal ngir mën a déglu wax ci bu baax a baax mën koo teewlu. Mhm. loolu di am solo lool. loolu moom dañ ko ñaan ñëpp ñu def ko. suñu nekkee seen i kaar di ñëw. teggi ni dafa war a mat. suñu wàccee teggi ni mat. ña fa nekk di leen wax ne jaar leen fii def leen nii nañ leen di déglu bu baax li ñuy wax. te xam la ñuy wax mooy organisation moo koy rafetal moo koy baaxal. disposition ñu jël yëpp. yoo xam ne bu sobe yàlla li deme ne wàllu ndox dana am bu doy bu ci kenn amul jaaxle bu sobe yàlla mhm. li nga xam ne tamit mooy barab yi mhm. tërale nañ ko noo xam ne fi sëñ bi di nekk mhm. ak waa kër sëñ Tuubaa bu kenn xëccoog ñoom dii dit daggal nañ leen barab yoo xam ne barab yu baax lay doon yoo xam ne fa la ñuy nekk mbaar mi tamit climatisé nañ ko ñetti climatiseur yu mag lañu yore boo xam ne suñ bàccee naa ci lu mu tàng tàng ah. tàng danañoo abal ba li jeex. dëgg la ah, ah. kon loolu tamit ni ci xel dal. Mm-hmm. waaye daal kenn ku nekk fañ ko yemloo mm-hmm. na fa yem mm-hmm. am na ñoo xam ne du ñoo bëgg mbooloo mi. sopp mbooloo mi di noyye mbooloo mi. ñoom ñëpp jóg di ñëw. su ñëwee ñun ñoom dañu war a yaatal. nañ leen yaatal. bul gis mukk mag mu wut fu mu toog nga nga nga nga déedéet nañ leen yaatal. Uh-huh. bu kenn génnee ay photo ak caméra wala yor si wala bopp di ko def déedéet wala presse bi waajal nañ leen fi ñu toll nii. lien accréditation joxe nañ ko. waajal nañ noo xam ne ay image yu leer yu baax mm. li ñuy génnee. joxe lien bi ku ko bëgg jël jël ko diffuser ko. Mm. waaye ñu def noo xam ne buñ dugg ci biir dankali ko dankali ko koo xam ne. Mm-hmm. ñi filmer sax duñu gis li ñu filmer kon disposition yooyu yëpp jël nañ ko. Mm-hmm. jox nañ tamit ay numéro contact yoo xam ne képp ku ci bëgg am lenn rek bu soobee yàlla da nga am koo xam ne da mën a waxal loo bëgg mu leeral dana la ko leeral ba mat sëkk disposition yooyu tamit jël nañ ko wala sonorisation tamit def nañ sonorisation bu baax boo xam ne fu waay mën a nekk danga mën a dégg bu baax incha allah mhm. wax ji dara lu lay gêné foo mën a toog da ko dégg da ko gis kon daal li bëgg daal mooy nit ñi nañ dolli discipline. Mhm. luñ ko amoon rek nañ ko gën a dolliwaat. muy góor ñi. Mhm. muy soxna yi muy ndaw ñi. kenn ku nekk ànd ak dal fu la jaaree loolu nga jaar fa te xam ne loolu mooy li nga xam ne mooy defar. dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf suñu classé soññee yu ama am am solo nga indi rawatina ci wàllu discipline boobu nga wax mooy yar bi. yoonu mu loolu la ñu ko xamee ab taalibe loolu la ñu ko xamee rawatina bu ñu toogee ci kanamu kilifa gi bañ a nekk di yuuxoog maam yàlla na fi yàgg maam yàlla na nga fi yàgg baax na lool waaye boo ko waxee ndànkit ba tey bay day baax day gën a baax rek waaw kay ñuy dégloonte euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu sécurité bi suñu mut laa wax na ko léegi suñu laa toogal fii nga toog foofa lu mu sori sori bul ne fii dafa sori xaaral bu ma wanee ginnaaw ma pousse tuuti ci kanam déedéet bu la fa tegee rek toog fa waaw toog fa rek te xam ne loolu moom mooy euh, ndigal li parce que defee li ma euh, ci tamit mooy mm-hmm. Hizbut organisation ni mu ko defee waxtu bu nekk mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy autorités yi di ay mm-hmm. kilifa yi nga xam ne mooy kilifa yi nga xamante ne mooy l'exécutif local ak le commandement territorial ñoom ñëpp jaar nañ si ñoom yëgal leen ko muy préfet sous préfet police gendarmerie sapeur pompier yëpp bu ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen sant bu baax a baax. Mm-hmm. seen taxawaay ci koor gi rafet na lool. te ñoom tamit jëlaat nañu engagement. Mm-hmm. ci jàppale ñu nga xam ne benn fànn boo xam ne seen wàll rek mm-hmm. boo xam ne dañ bàyyi mu sooxe mm-hmm. du am kon loolu tamit yaakaar naa ne mat nañ bu baax a baax ci loolu mm-hmm. ba ci service d'hygiène ñoom tamit ci liggéey bi la ñu bopp dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax mu euh, ngoog su ko defee xam naa laata may jox sëñ euh, sëñ maam góor euh, gi bëggoon naa ñu seetaan rek benn élément muy waa Kolda waa Kolda ñoom it ci mbir mi la ñu bokk sëñ Moussa Sané moom la ñu teewlu ndax fi ne nii waxtu bi dafa jeex tàkk ñi ngi may soññ ne ma jeex na waaye su ma joxee sañ maam góor moom dafay soññee ba pare tàggoo waale su ko defee ma defaat benn tour kenn ku nekk tàggoo ak say soññee ñu daal di tëj jataay bi kon ñu seetaan euh, sëñ Moussa Sané mi nga xam ne moom it mooy wax ci euh, kàddu euh, daayira bu Kolda. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di leen siyaare bu baax a baax di leen woo ci daara Kolda mbokk yi nag Kolda yëpp mbokk taalibe yëpp mbokk yi yëpp ñoo ngi leen di woo ci ziar nga xam ne ñu ngi koy waajal ci Seex Mamadu Muntaxa ci weer bi nekk di la vingt-deux mai ñu ngi ñu ngi woo ñëpp bàyyi kenn di woo leen mboolem daara yi biir réew mi ak bitim réew mi yëpp mboolem membre Hizbut Tarqiyyah ñu ngi lay woo soppi yeeg géeñaan yëpp képp ku sa yi Hizbut Tarqiyyah daal ñu nga xam ñu ngi koy amal le vingt-deux à que Seydou Mahamadou Moutaha rahmaani rahiim barke borom Touba rahmaani rahiim barke borom Touba rahmaani rahiim barke borom kon ñoo ngi siyaar ñëpp ñu ko sëñ Cheikh waxee di ndokkeel ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp nag ci suñu wàccaay ziar bi ci ziar bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci wetu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na yàgg te Euh, ci njiital Serigne Youssou Diop responsable moral Hizbut Tarqiyyah kon ñoo ngi woote di woosu suñu mbokk jullit yi di woo suñu partenaires yi suñu sympathisants yi mbokku Kolda yëpp ñoo ngi leen ci woo yi ndaje bu mag bii ñu dem daara ji daara ji nag buñ ñu dëggee ziar bi moom boobu ba tey tooguñu ñu ngi woon ci wàccaay ci lu jëm ci wàllu addiya yi bu ñu demee nag ba noppi ci loolu nga xamante ni noppi na ñu féetewoo ci wàllu organisation bi ak yëgle ak ñu ñu war a yëgal ñu yëgal leen si la ñu yëgal dem si Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacke ibnu Cheikh Cheikh Mouhamadou Moutada mu fi nekk wax ko mu ñaanal ñu ndokkeel ñu ñu jóge fa dem ci jëwriñ dayra central muy Cheikh Pape Ndiaye moom it mu rafetlu ko lool mboolem jëwriñ ba si ñoom bàyyi yoro si la mboolem jëwriñ yi fi nekk ñu yégal leen ko ñu ñaanal ñu si eh, ne xamal nañ nag dañ koy ànd ak yéen kon nag foofu lañ toll am na convoi nag bu nga xamante ne dañ ko waajal bu nga xam ne day dem Touba ànd ko waa daara isbu tarxiya Kolda dem siyaare sëñ Mouhamadou Mountakha ajju ak samedi gi ñu jëm muy le 22 ci weeru mai liggéey bi nag buñ ko tàmbalee ba tey lañ ko àndal ginnaaw ñu waxee wàccaay bi jàmbaar yi lañ ko àndal ma indi ay kaddu rek ci wàllu euh, euh, euh, pël suñ mbokk pël musidal fuladu mi salminima on mi jaarima mon goto inde mum e yettode mum eɗen kalna mon miɗen mbaɗa e ziyara mawɗo to touba ndu o aset aroɗo ɗo woni samedi o balɗe nogas e ɗiɗi mois de mi miɗen nodda fuladu foof gara min jaade mumen e o mo siyare mawɗo ɓe min mbatta to touba inchallah ah, mo jox eh, kaddu gi seigne ablaye mu indi si tuuti kaddu rek mu ma ñëw ma ko mo be kon dona na nyal adam fa nyama de mo mo be le le 22 quoi kon mo mbari on furo ki la man ko nyan joral be mo mo be ki la mo la jar ma inta mo kon mo mo be ki kon mo départ jam le 21 ma départ jam pour kera tuwa kon mo mo be ki la mo la jar mo mo le 22 le 22 ba ke ba ke tuwa ba ke tuwa so mo ta mi ta wal jar kon mo mo be ki le 21 ok mu nga euh, kon mu doonoon euh, Serigne Moussa Sané mi nekk daaray Kolda ak ñi nga xam ne ñoom la àndal euh, ci liggéey bi dangeen ngeen soññee ci kàllaam ak alpulaar da ngeen koy ci kàllaam soose muy wane rek ne waa daara Kolda ñoom tamit takku nañu ba dëgër ni nga xam ne noonu la yeneen daara yëpp takkoo hmm, ngir fas yéene liggéey bi kenn du leen ci man siyaare bi kenn du leen ci man waaye it kenn du leen jiitu Touba loolu it lu ama ama am solo la su ko defee kon mën nanoo daal di rek def benn tour ngir daal di tëj sëñ maam góor mën nañoo tàmbalee ci yow yan kàddu moom ngay tëjee ay ci ay soññee rawatina daara yi nga xam ne si ñoom ñoo nekk foofu ci Italie nga bàyyi leen fa toog fii nag di leen xaar te xam ne bés ba incha allah ñu ci bëri bëri ñoom ci ñoom danañu dagg bi ñëw fekk si la nga ànd ak ñoom fas yéene yegg ci kanamu sëriñ bi yan kàddu nga leen di soññee ngir rek ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne moom mooy euh, bés bi. suñ sëñ Modou. Mm-hmm. xanaa gën a sant sëñ Tuubaa Euh, liggéey sëñ Touba moom mm-hmm. mooy mbir moo xam ni mm-hmm. képp ko am tawféex ba ne ci mm-hmm. da nga war a gën a santaat bu baax a baax kon di soññi sama bopp di soññi mbooleem euh, membre Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci bitim réew tale ko ci daara Italie ji nga xam ne fi lañu féete ci su nekk fa suñu jëwriñ sëñ góor a géey sëñ moo Modou Ba daanaka su ma leen tuddee ñoom ñaar tudd naa responsable yi nekk yëpp kon ñu bëgg siyaar bii nii ñu ko wootee ci mbooleem isbu tarxiya yépp ñoo kenn ku ci ne euh, ñu takk laxasaay yi te fexe teew si te xam ni siyaar la boo xam ni moom euh, duñ ñi mus na am de yaakaaruma ko ndax niñ ko waajee rek euh, mooy firnde ji wane na ko te engagement yi nga xam ni jëwriñi daara ji jël na ko ci mm-hmm. mboolem membre yi ak daara yépp fekk si ko ci yaakaar naa ni kenn ku ci ne ni ko sëñ Mourtala waxee rek noonu lañ koy def fii ba bis ba lépp lu ñu defaan rek fàtte nañ ko kon dañuy takkaat suñu laxasaay rek ah, mel ni kuy soog a tàmbaliwaat ah. bañ ni sukk nañ ci kanamu sëñ Momadou Muntaxa mm-hmm. euh, jébbal ko suñu àddiya loolu nag euh, kon daara bitim réew yëpp ñu ngi leen ci woo te xam ni euh, teewaay bi mm-hmm. lañ ci gën a tee taamu ak addiye ji yëpp mu teew mhm. kon yaakaar naa ni foofu rek lañ koy euh, lañ leen ci woo mhm. di ci woo mbooleem daayira yi nga xam ne ñu nga fa ñëpp mhm. ndax euh, képp koo xam ne si euh, bëgg nga lu baax yaakaar naa ne ziar moom buñ ko wootee da si ci wuyu si kon ñu ngi woo mbokki taalibe yëpp di woo mbokki dëkkandoo yi di woo mbokki am jàmm yëpp di leen xam ne daal ñu ngi leen di woo le 22 ci ziar bi nga xam ne war nañ ko def ci Touba ci kër sëñ Touba gi ci jumaay ji mhm. ci teewaayu sëñ Mouhamadul Muntaxa ànd kook suñ jëwri sëñ Youssou Diop mhm. responsable moral Hizbut ya mhm. di ñaan suñ boroom yàggal ko ci suñ kanam bu baax a baax a baax a baax a baax ba liggéey yi mu bëgg yépp mu def ko ci ànd kook sëñ Mouhamadul Muntaxa te ñu ànd kook moom te am ci ngërëm suñ borom ngërëmu sëriñ Touba allahuma amin barke borom Touba amin jërëjëf suñu am góor ñu ngi lay santaat bu baax a baax suñu place yi xam naa kàddu yi nga yëkkati woon léegi daanaka mënoon na sax ma nekk kàddu yu tëj waaye euh, kaddu soññe rek bu ko defee ñu waaw kàddu soññe gi de mm-hmm. weesu wut mm-hmm. ñu xam ne bi fi sëñ atu bàyyi ko ba léegi bii mooy zer bu njëkk mm-hmm. boo xam ne ñu ngi ko seer Cheikh Modou Mountakha Mbacké sëñ Youssou nag. bokk na ci lim ñuy soññee mooy pendant plus de quarante ans. Ah. sëñ Atou am na loo xam ne mu ngi kon doon nampatal. duñ si ñeme la duñ ci xirtal. ñu nekk ci ànd koog moom fi ñu toll nii war ñoo tari. Ah. wane ne lam ñu doon jàngal mokk na. kon ah, mboolem kuy membre. Mm. ñoo ngi lay woo ci lépp loo jàppoon. Mm-hmm. li fépp foo toll woon fàtte ko. jógaatal jógin wu bees. Mm-hmm. woo xam ne da njañ sa gis nañ ñoo xam ne ñu ngi sa di joxel seen bàyyi mhm. boo xam ne ba mu fi bàyyi koo yàgg na wala seen mhm. ndey wax xam fi bàyyi koo yàgg na wala joxel kuñ xam den tabbil ndax xam nañ ne yoolu ziar bi ak tuyaa bi ji nekk si ziar mhm. mën naa àgg fu nekk ñu yéene ko seen waajur ñu nekk barsàq noonu nga ko mën a amee nga ko defal sa doom joo xam ne amaana mënagu dara te nga bëgg mu màgg ba wuutu la ci lii ëpp la pastaf ci lii kon loolu ñu nga ci woo ñëpp ñu xam ne nañ gën a farlu ci lii te xam ne liggéeyal yàlla sunu borom la mhm. sàkku ngërëmal yàlla sunu borom la ci dem teew ci kilifa ku mat kilifa di sëb sëriñ mhm. mu xool bëtub yërmande nga delluwaat sab liggéey dëgg la muy la am jërëjëf ginnaaw euh, buntu bu ngëneelu ziar lañ doon wax. te xam naa bu ñu waxee ziar faaw ñu wax la koy firndeel. Mhm. di ko jëmmal muy addiya. Mhm. moo tax mun ñoo wax ab tënk rek mun ñoo ñàkk a wax ab tënk rek. Mhm. ci njëriñ addiya yi. te loolu euh, Cheikh Maodo Moustapha Mbacke. mu tedd ma. mu bindee leetar ziare sanga mu tedd ba Cheikhul Khadim. ba ziar yi ba addiya ji eggee. sëriñ bi bind ko ab bataaxal tontu ko wan ko ci njëriñ addiya. mu mel ni. moo tàmbale woon ci alhadiyatu tajjibul murida ila saada mm. addiyee day wa mat murit mm. jëmee ko ci ak texe li mu wax lépp ni ma koy tënkee mooy képp ku bëgg daraje yu kawe mm. képp ku bëgg a bari alal képp ku namma gudd fan képp ku bëgg nit ñi sopp la képp ku bëgg raw sag maas képp koo xam ni Euh, bëgg naa mucc ci gis ñaari malaaka yi laaj ci biir bàmmeel mhm. képp ku bëgg a jéggi siraat jéggi bu gaaw képp ku bëgg a tàbbi àjjana mhm. te duñ la xisaab mhm. képp koo xam ne bëgg naa mucc ci fitne biir bàmmeel képp koo xam ne bëgg naa mucc ci sax yi lekk ci biir bàmmeel ak yeneen yu dul yooyu sëñ bi xamle na ni addiye moo koy maye te bind na ko ci lettre boobu waaye itam xamle na ni wa fil hadiyati manaafiu laa tuktabu bil aqlaam mm-hmm. nee na addiya ay njëriñam mënee su ko bind ci xalima mm-hmm. mënee su ko tudd ci aw làmmiñ ndax nee na la ci gën a néew ca liñ ciy fay benn addiya mm-hmm. nee na li ci gën a ci liñ ciy fay mat na ci fukki junni ak ñaar waaye nee na la ci gën a bari nee na suñu borom rek moo ko xam kon ñu xam ne addiya ay ngëneelam mëneesu ko lim waaw waaw jërëjëf jërëjëf sa imam ñu a li muy tëjee de mooy Euh, fàttali rek kàddu yi nga xam ne suñu jëwriñ sëñ Yuusu moom la ubbee woote ziar bi mu teg ko ci ñetti barab leneen li di cant cant nag ku ne xam na ni am na nu ñu koy defee te cant moom doon leen rek lay jur li ci des mooy yeesal jaayante li ci des mooy feddali laxasaay looloo waral eh, ni ko suñ maam góor waxee suñ Murtala wax ko amul kenn koo xam ne ci isbu taraxee danga naan lii lañ ma tobbiloon ci sama sas matal naa ko taxaw fa ku ko def gars yi dañ lay romb ah, ndax sëñ Tuubaa eh. loolu rek la jiitoo gars yi baax yi sëñ eh. nee na ba mu yeggee ci foo xam ne ku fa mës yegg mm-hmm. noppalu wala wala wala wala wala wala wala wala wàcc mm-hmm. yemale fa sab liggéey da ngay defee moo war nee na ba mu yeggee foofu moom sëñ Tuubaa ci la gis lu gën a rëy loolu yëpp mm-hmm. mu xeeb mboolem fu mu toll woon laxasaayu futti ko riir wuti borom. ilaa man lahu kulliyati xatta wajahat mhm. mi daal di waa xalaat waxar kaadiri man na kon nag maa ngi woo mboolem waa is bu tarxee fu waay toll woon ñu xam ne gannaaw des na ñaari fan mhm. wala ñetti fan mhm. wala ñeenti fan kon ay ci murit bu mu laal suuf bu kenn tekk sa laxasaay mm-hmm. nañ ko gën xëcc rek mm-hmm. bu keroogee bu ñu jàkkaarloog moom borom yëf yi lu ci waaye defoon ni nga ko xeeb wallaahi wér na jërëjëf ñu ngi santaat bu baax a baax kon sëriñ Aline Gueye imam di sant sëñ Mamadou Lamine Diouf sëñ Mamadou Moutala euh, Sey ak euh, sëñ Maam Góor Sarr ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba ngeen mën ñoo gis mën ñoo dégg di sant it mbooleem membre Hizbut Tarqiyyah yëpp rek ak fu ñu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp di jiital ci bopp bi rek Serigne Youssou Diop mi nga xam ne moom mooy jëwriñu daara ji di ko ñaan suñu borom mu guddal fanam waaye it mu dëgëral ko lool nag ba yen bi nga xam ne si moom la yanu moom suñu borom kattanal ko mu mën koo uh, yeggale ni nga xam ne si noonu la ko bëggee noonu la ko yéenee uh, di leen santaat yéen ñi nga xam ne yéen a doon seetaan ak ñi nga xam ne si ñoo ngi doon uh, teewlu ci rajo bi ak fu ngeen mën di nekk rek ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi leen di jox dig daje ëllëg ak jàmm ci bu 21h ci seen télévision Al Mouridiyyah di leen ñaanal guddik jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu